indicateur bu Walf TV très euh, heureuse de vous recevoir de nouveau sur le plateau de Savoir Santé euh, cette fois-ci rétrospective euh, santé 2020 la ñuy waxtaanee xam ngeen ne atub ren jile di ati 2020 nekk naat bu nga xamante ne nii Sénégal dootu ko fàtteti mais àdduna wërngël képp dootu ko fàtteti ndax daanaka l'actualité reste dominée par la santé la santé pourquoi parce que dañu nekk di dund ab pandémie pandémie nag bu ñu ko waxee mooy doomu jàngoro ji nga xamante ni euh, laal na benn pàcc ci réew waaye laal na àdduna bi yëpp loolee nag mu dooree ci diwaanu Chine euh, gis nañ ko ci at yi 2019 yem ak weeru décembre bu ñu ko dee xayma sax ci àdduna gi yëpp euh, daanaka atub lëmb ñu ngi dund ak doomu jàngoro fi ci réew Sénégal nag feebar fi gane si fi weeru mars weeru mars ak léegi nag bu ñu ko dee xayma daanaka dund nañoo ko mbas bi lu toll ci 9 mois jàpp 10 10 mois 10 yi nga xamante ne nag dund nañ ko ci jamono jamono ji nga xamante ne nii métti na loolu parce que nag yemul rek ci wàllu wérgu yaram secteur yëpp dafa daal di tagatémbe euh, képp ko doon yëngatu daanaka wàccee nga sa euh, liggéey ndax la nga xamante ni moom moo di mbas mi mu doon situation bi nga xamante ni dund nañu ko ci anam gi nga xamante ni nii euh, dékku na nañu ko ak suñuy autorité dékku nañu ko également ak personnel bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu po wérgu yaram waaye dékku na nañu ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taskatu xibaar yi ci anam gu nga xamante ni nii métti na loolu savoir santé nag xam ngeen ko xamante ni tënk na ci wàllu wérgu yaram daañu doon ko dégtal ngeen di ko dund ngeen di ko euh, gis di ko daj parce que nag ñëpp xam nañ ne la santé est au début et à la fin de tout chose te ren ji bi mbas bi ñëwee euh, je pense que loolu confirmé na adage boobu li nga xamante nag mu ngi nañu ko waxtaanee euh, ci fin d'année bii nii rétrospective santé 2020 mënul woon a ñàkk ñu am nag ci plateau bi ay kilifa yu am solo yi nga xamante ne nii ci biir xeex bi mun ñu leen ñàkk baña a ndax ku ci nekk bàyyi nga sa ci pàcc bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee euh, ki nga xamante ne nag moom la ñuy njëkk a euh, daal di nuyu euh, ci plateau bi gannaaw bi ñu leen tatagalee gërëm leen sant leen ci topp gi ngeen ñu topp at gi yëpp ci émission bi lii di Savoir Santé ma amoon mbégte di leen ko daal di dégteel am ci tamit fierté contentement saa su nekk di leen dégteel li nga xam ne moo di wàllu wergu yaram damay rek daal di nuyu ñi nga xam ne dalal naa leen ci plateau bi ngir ñu waxtaanee rétrospective santé 2020 ñu ngi ak prof ak docteur Pape Moussa Thior moom di Fall expert en santé publique moom euh, docteur Thior euh, dañu koy rek daal di bàyyi mu nuyonteeg téléspectateurs yu Walf TV et jàpp naa ne c'est la première fois. donc du la première fois mooy ñëw si Walf TV maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu say euh, téléspectateur di nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi. Mhm. docteur Konaté. Mhm. docteur Camara sama rakk sama xarit. xam ne toog na la lu yàgg naa ko gis. ak madame Penda. Kane madame Penda Kane voilà euh, madame madame madame Kane Bintou. voilà merci voilà euh, ñu ngi tamit ak si euh, plateau bi annoncé na ko léegi moom docteur Pape Moussa Thior docteur Amadou Yeri Camara moom mu nekk secretaire général bu SAMES nekk médecin spécialiste en santé publique docteur Camara ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Savoir Santé spécial coronavirus. ñu ngi lay fay soxna Aïssa ñu ngi rafetlu plateau bi nga. organisé tout d'abord ma nuyu sama collègue yi fa nekk mooy sunu sunu mag docteur Thior def liggéey bu rafet ci xeex si biiru Sénégal nuyu sunu bokk mbaar docteur Konaté ak soxna Bintu wala docteur Bintu Kane <laughs> ñu rafetlu rek plateau bi et ñaan rek lu ñu ci taataan rek dina gën a gindi sénégalais yëpp. incha allah ci mbirum santé. d'accord euh, ñu ngi tamit euh, ci euh, plateau bi ak docteur Oumar Konaté mu nekk directeur bu clinique Cœur Marie nekk yi tamit secrétaire adjoint bu association des cliniques privées du Sénégal xam ngeen ne lu jëm ci wàllub secteur privé bi seen pàcc am na solo loolu ci pajum Sénégal tax itamit ñu dalal ko ngir gën a mën a yaatal seenu liggéey docteur Konaté ñu ngi lay nuyu dalal. ci euh, Savoir Santé. waaw euh, jërëjëf euh, soxna Aïcha. Mhm. Aïcha Diakhaté ñu ngi lay delloo nuyo nuyoo bi di nuyoo tamit sama natango yi ma bokkal émission bi sama doyen doyen Thior. ak sama mbokku mbaar comme ni mu ko waxee docteur Camara. Mhm. di nuyu tamit madame kan mhm. bi ñu bokkal plateau bi Euh, di nuyu téléspectateurs yi et espérant que euh, suñu génnee fii dinañ ci jëlee loo xam ne quelque chose de positif. <laughs> alors euh, aujourd'hui également dama euh, kontaan loolu ndax dama bokk ak plateau sama sœur euh, Bintou Kane Bintou Kane elle est journaliste au groupe D-Media Zik FM 5 TV di fa liggéey comme nu ñuy liggéey fii rek ci Walf chroniqueuse santé la xam-xamam màcc ci lu jëm ci wàllub wérgu yaram mu ciy dox di ci wax bu baax a baax a baax ñëpp xamee ko ko kan Kane kontaan naa loolu jàkkaarloog yow ci savoir santé. maa gën a kontaan Aïcha c'est toujours un plaisir. suñu confrères yi di ñu invité parce que ñoo bokk liggéey bi je dis toujours qu'on n'est pas des concurrents mais qu'on est des confrères et c'est un plaisir en tout cas de venir à mm-hmm. Walf pour partager ce plateau de fin d'année mm-hmm. euh, di nuyu ñi ci plateau bi yëpp ak euh, les téléspectateurs de Savoir Santé aussi voilà xam naa ne euh, gars yi dinañ ne du yomb seen santé bis li nga xam ne moom moo di Savoir Santé la c'est la santé qui gagne euh, Bintou Kane xam naa dinañ ñëw ci yow bu baax a baax ndax tey la moo tax teewaay teewaayam am fi njëriñ moom mooy nekk euh, at bi yëpp xam nga ça a été par euh, la Covid 19 te li ñu gis moom mooy nekk tasum liggéeyum tasum xibaar ñu bëri xaw nañ koo ŋàññ ci jamono ji nga xamante ni ñëpp dañoo ne nañu daal di làkku ci ginnaaw kilifa yi ngir rek mën a amal liggéey bu mucc ayib ana ñoom naka lañ ko jàngatee ñoom surtout chroniqueurs yi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu santé ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo di journalistes spécialisés en santé moom dina ci gën a indi ay leeral ñu ngi tamit ak ki nga xam ne moom moo di euh, euh, directeur de la euh, prévention mu waroon teew ci plateau bi waaye nag xëy na lenn ci lënt-lënt moom moo tax mu juta antu waaye mu ngi ak ñun en direct au téléphone di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye docteur El Hadji Mamadou Ndiaye bu fekk da yaa ngi ñuy déglu ñu bàyyi la nga nuyonteeg mbokku téléspectateurs yu Walf TV yi lay teewlu. jërëjëf Aïcha di la nuyu di nuyu Sénégalais yëpp. seen téléspectateur ak ñi xam ne aussi ñu ngi leen xëy na ñu ngi leen di suivre ci rajo bi di nuyu ñu nekk ci plateau bi di ci beral nuyoo euh, ñoom docteur euh, Pape Moussa Thior docteur euh, Camara Yeri Camara yow Aïcha ak docteur Konaté ñoom ñëpp ñoo xam ne ñoo seq plateau bi di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal aussi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ba léegi te di ko rafetlu aussi jërëjëf donc dañ lay garder en repérage rek euh, yow nga suivre ak ñun euh, émission bi yëpp euh, xam naa ne laaj bu njëkk bi yow la ñu koy laaj waaye itamit di garder waale ki nga xamante ni moom moo di professeur Moussa Seydi moom mi nga xamante ne moom moo nekk coordinateur bu lutte bu Covid 19 ñu gis ne liggéey bu am solo la ci kii jamono ji na xam ngeen ne cas yi dañoo yokk bu baax a baax donc liggéey bi également dafay gën di yokk tax sax moom professeur Moussa Seydi dina wax ak ñun vidéo euh, euh, conférence ngir rek mën ñu indil contribution euh, par rapport ak li ñu fas yéene waxtaanee muy mbas mi te mu ci liggéey pàcc bu am solo très rapidement dañuy def benn historique bu ndaw rek laataa ñoo démarrer li nga xam te ne moom moo di waxtaan bi ca tour de table bi li ñu mën a jàpp moom mooy ne ni ki 2 mars la ñu daal di jot ci mbas mi laataa loolu nag déggoon nañu doomu jàngoro ji depuis décembre 2019 ca Chine 2 mars nag ñu am li nga xamante ne moom moo ji benn cas njëkk bi bi cas bu njëkk bi tamit traité woon nañu ko toog deux semaines yaakaar ne sax jeex na ca la ñu gisaatee la nga xamante ne moom moo di euh, ñaareelu cas bi ca diwaanu euh, Touba ca la nag mbir ma commencé law euh, ba jëm yàllaay tey ñu ngi dund ak doomu jàngoro yi jiri di rek coronavirus coronavirus nag nekk feebar bu nga xamante ne bi mu duggee ci réew mi defi na fi ñombe waaye am nañ benn mois boo xamante ne demoon nañu ba yaakaar ne mbir mi jeex na wala sax amoon ci yaakaar ne wàññeeku na bu baax a baax ndax dem nañ ba boo xamante ne ni am nañu dem ba am 3 cas ci journée bi euh, ñëpp commencé woon sax di tekki masque yi nànk-nànk di xalaat ne que doomu jàngoro bi jeex na mais li ci gën a garaawaat mooy dañu toog rek ba ci mois de novembre bi di euh, njeextalu euh, weerub novembre li nga xam ne moom moo di kaay di dem di gën di yokku dem di gën di yokk ci jamono ji nga xamante ni ñu bëri commencé woon nañ dundee yaakaar ba ne sax dañuy commencé feetu li nga xam ne moo décembre mu nekk nag mbir mu nga xamante ni faaw ñu waxtaanee ko xëy bu demeewul woon noonu sax dinañ leen njukkalee waxtaan bi waaye tey faaw rek ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo di Covid 19 euh, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye su fekkente ne yaa ngi may déglu euh, tey yéen ministère de la santé li ngeen njëkk a wax mooy ne que l'heure est encore grave dem sax ba xam la ne ñaareelu vague la ñu nekk ci wopp geek coronavirus ana fan ngeen teg euh, li ngeen xam ne wax ngeen ko mooy ne jamono ji ñu ngi si ñaareelu vague bu coronavirus fi ci réew Sénégal. Euh, jërëjëf ci sa question. d'abord euh, nit ñi ñoo utiliser terme vague vague moom la ñu Europe ak feneen ak feneen. mais en réalité vague ci boppam sax soo seetee ci épidémiologie vague dafa amul ci épidémiologie en réalité mais du c'est une polémique inutile polémique bu amul solo li am solo mooy que cas yi dañoo yokk de recrudescence mun nañ ko tuddee vague mun nañ ko tuddee leneen mais du ci wàññi dara ci signification bi li ñu xam mooy que cas yi ci depuis plus de un mois cas yi dañoo jolliwaat loolu moom dañ ko nemmeeku ci Sénégal ak yeneen réew yi te li ko waral entre autres am na explication yu bëri mais biñ ci gën a ràññee moo que nit ñi ñoo xaw a bàyyi seen loxo wala waxuñu xawuñu bàyyi sax wala dañoo bàyyi seen loxo ci mesure barrière yi ñuy waxoon mooy di tolli seen i di dandante di raxas seen loxo di wàññi xew yi ak euh, ndaje yu dul farata ci yooyu daal lañ mun a tënku li am solo li nga xam ne xëy na yokk na ko même si dee dafa ñëw daje na ak loolu nag fekk loolu amatul nit ñi bàyyi seen ko mbir mi gën a bëri loolu daal lañ mun a jàpp ci eh, yokku yokku kaay yi li ñuy woowee deuxième vague wala recrudescence bi mu am terme bii nag nit ñi mun nañ utiliser lu leen neex ay deuxième vague et cetera mun nañu wax lu leen neex mais loolu amul solo ci mbir mi voilà euh, docteur euh, El Hadji Mamadou Ndiaye euh, wax nga ko ci li nga xam ne moom moo di recrudescence cas yéen ngeen gën a accentué mais depuis début mbas mi docteur Thior dañu nemmeeku woon ne que amoon nga benn terme boo xam ne foog naa ne bokk nga ci ñi ko fi njëkk a génnee bi nga fi njëkk a génnee yi tamit indi woon na coow lu rëy ndax ñëpp jàppoon na ne peut-être mënul nekk muy euh, l'expression immunité collective bi nga demee ba ba biral euh, expression boobulee euh, jàppoon nga ne peut-être ñu bëri commencé woon la la ŋàññ ni que waroo wax ne que war ñoo mën a am immunité collective parce que tout simplement c'est une maladie non maîtrisée xamaguñu ko mu dem ba benn moment boo xamante nii après ñu tuddee Macky virus mu mel ni daf la dégg ndax jamono jooju dañ doon def immunité collective entre guillemets wax jooju bi nga ko waxee ak la ca toftal yëpp ana ban jàngat lañ ci am tey. waaw balaa may répondre sa question damay nuyu sama sama xarit sama doom lay docteur Ndiaye. Mm-hmm. Euh, di ko masaw coono parce que vraiment xam naa ne sonn na trop. Mm-hmm. te mbas mi depuis mu tàmbalee ba léegi yendalul fanaanul donc vraiment ñu ngi koy encourager di ko féliciter aussi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne. Mhm. mu ngi koy def ci direction de la prévention aux côtés du ministre. Mhm. alors donc bi mbas bi ñëwee bon man dama bokkoon ci spectateurs yi. donc parce que liggéeyuma ci ministère liggéeyuma ci service boo xam ne bon euh, suñu liggéey direct. Mhm. Covid du Covid 19. mais dama nekk un citoyen di xool su ma yeewoo suba. ma déglu bulletin bi jël données yi ma am di ko analyser mu mel ma ni daal comprendre mu bu baax li nga xam ne loolu lañ doon doxal parce que dama jékki-jékki mu gis ne suñu cas yi ñu amoon bariwul amuñu woon cas yu bari amuñu woon décès du tout booy seetlu bi ñuy def mesures yi y avait pas de décès c'était zéro décès y avait des cas temps sax liñ doon testé bariwul ay 100 cas lañ doon testé mais y avait pas de décès tout alors ñu jékki-jékki ma gis ne dañoo tëj école yi <laughs> ma gis ne dañoo euh, tëj yi doon julli def couvre-feu ni nit ñi bu kenn jógee euh, Dakar dem Mbour <laughs> bu kenn jógee Thiès ñëw Dakar mu nekk koo xam ne tam dama nekk ci biir askan bi gis ni mesures yooyu vraiment sonaloon nañu askan wi trop. te feebar bi wax dëgg yàlla defuloon loolu parce que feebar boo xam ne indiwul benn dee cas yi bëriwul ñu jël mesures yooyu man jaaxaloon na ma trop. alors ci lañ ma invité ci benn émission. boo xam ne dañ doon wax les conséquences économiques di Covid 19. c'était quand même d'actualité parce que nit ñi ñu ngi commencé woon sonn. parce que mm-hmm. koo xam ne da ngay béy ci nooto wala euh, booru Tiwaawan yooyu mm-hmm. ñi nga xam ne dañu daa jaay si seen récolte yëpp dakaar mënatuñoo ñëw donc ñooñu commencé ñaxtu ñeneen ñi nga xam ne tam dañu amoon problème économique déplacement bi ñi nga xam ne mënatuñoo liggéey xam nga Sénégal moom informel daf fi am doole mm-hmm. fonctionnaires yi ñoom ñoo fi am salaire par weer te fonctionnaire yi bëri ñu ci bëri dañuy xëy suba teel génn seen kër dem wuti dépense alors boo indee couvre-feu indi restriction day am ay conséquences économiques yu metti mhm. ci laa def sama analyse ma ne man ci sama gis-gis soxlawul mesures yooyu ñuy jël lépp ñu du ko jël parce que boo nekkee ci santé publique soo amee épidémie da koy caractériser mhm. boo caractériser épidémie bi du point de vue de la rapidité mhm. du point de vue de la fulgurance du point de vue de l'étendue du point de vue de la mortalité nga doog ko nag xool lan la laaj comme intervention te wax dëgg yàlla moment boobu soo caractérisé woon équilibre bi ñu am Sénégal amul lenn luy justifier mesures yooyu yëpp ñu doon jël xëy na nag c'était de mesures politiques xaw ma ci dara mais du point de vue santé publique koo xam ne def nga santé publique ngay analyser information yi vraiment tu as du mal à comprendre pourquoi ñu jël loolu ci laa defoon proposition boobu alors affaire immunité collective bi man dama bokkoon ci benn task force. Mhm. boo xam ne États-Unis ay professeurs yu mag ñoo fa nekk ñun dañu gëmoon loolu ci feebar bi dañu gëmoon ni feebar bi suñu bàyyee nit ñi ñu circuler dox seen activité du bloquer économie bi donc mm-hmm. et puis mën nañu dem ba benn moment bu dee un nombre critique de personnes sont infectées mun na am ñu am immunité collective donc loolu ci argumentaire yi laa ko xool te ba may wax nañ def euh, immunité collective pas comme stratégie immunité collective du stratégie immunité collective du stratégie immunité collective c'est un état épidémiologique boo xam ne processus la da nga ci yegg mais nekkul ne une stratégie te ba ma ko waxee ñi ko déglu ñëpp war nañ gis ne dama ne soo defee loolu ba pare soo bàyyee nit ñi ñu doxi seen soxla ñu circuler da ngay renforcer les mesures barrières loolu wax naa ko. tout à fait donc boo xoolee quelque semaine plus tard effectivement. Euh, président de la république jël ay mesures yoo xam ne dafa méngoo ak man li ma waxoon. Mhm. te tam boo ko seetloo bi ñu commencé ubbi cas yi dafa wàcc. contrairement à période bi nga xam ne dañu tëjoon def ay couvre-feu ba pare nit ñi kenn du bouger donc loolu laa mën a def comme analyse. Mhm. maintenant li ñu xamul mooy immunité collective boobu quand est-ce que la ñu yegg. Mhm. loolu kenn mënu ko xam ba tax na euh, am na benn émission boo xam ne mën wax ma ne. ñaari màccat laa xam yoo xam ne xëy na épidémie bi mën na jeexe lool mooy vaccin mhm. te suñu nee vaccin mooy vaccin bu efficace vaccin boo xam ne mucc ayib la wala ñuy dox ba yàlla may ñu lu nga xam ne moom la ñuy wooye immunité collective voilà pour résumer li nga xam ne mhm. loolu laa waxoon ak li ma proposé <laughs> naa ne dinañ ci euh, euh, gën a euh, ak yow ci immunité collective boobule waaye bi mbir mii nag amee file ci réewum Sénégal ñu daj ko mois de mars gisoon nañ ne que ñun déggoon nañu ko daanaka ci actualité yi nga xam ne dañu ko doon suivre loolee daf may jox peut-être l'occasion ma tourner ci docteur Amadou Yeri Camara nga xamante ne moom tey teewaayam bokk na ci nekk secrétaire général bu SAMES ku neex SAMES xam ne syndicat wu euh, médecins yi ci Sénégal la euh, moom mu jiite ko waaye également bu doomu jàngoro yu mel nii feeñee ci benn bërëb dañuy wax très souvent war na mën a am benn travail d'anticipation boo xamante ni nii médecin bu ci ne war na ko mën a def ci dëkkam fii ci réew Sénégal bi nga xamante ne yéen dégg ngeen doomu jàngoro ji bi annoncé wu Chine rawatina waan mu nekkoon sax coow lu rëy ndaxte ñun daanaka bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne war nañ ko gën a mën a caytu ndaxte dañu amoon ay étudiants yoo xam ne ñoo nekkoon foofu te ñu ci bëri ñu ngi doon sàkku ne dañu bëggoon ñibbisi donc ñun euh, de façon général on était vraiment euh, là au diapason de cette de cette maladie là euh, bi loolu amee est-ce que SAMES amoon na peut-être benn travail d'anticipation bi nga xamante ni defoon ngeen ko lëkkaloo ci autorité yi docteur Amadou Yeri Camara jërëjëf soxna Aïcha mhm. laaj bi am na solo parce que comme ni nga ko waxee damay compléter rek na ñun syndicat médecins yi la pharmaciens yi ak chirurgien dentiste yi nekk ci public bi donc mën nañ ne suñu syndicat ñoo séq lutte bi xeex bi foo mënti dem ci pyramide bi yëpp sunu ay membre syndicat lañ donc fu xeex bi toll rek mën nañ xam euh, maanaam liñ koy dundee li ñu gisoon nag mooy bi feebar bi commencé rek ministère am na ay mesures yu mu jël mesures yi moom mooy raviver nañ li ñu naan comité de gestion des épidémies à tous les niveaux que mu nekk ci au niveau national au niveau régional et au niveau départemental comité yooyu nag en dehors de cela amoon na li ñu doon tuddee AMS moom mooy incident management système loolu pour jël en charge maladie la mm-hmm. comité yooyu nag ñoom ñoo waroon tëgg ay stratégie mm-hmm. ñu koy sukkandiku ci comité national bi di ko wàcc ba ci suuf. Mhm. loolu de le début réunion yi commencé woon nañ. Mhm. ñu ñuy jox ay directives naan ñu xool leen lal yi ñu déjà dañu sant ñu identifier fu ñu mën a jëlee en charge maladie. Mhm. ubbi ay centre de traitement xool est-ce que am nañ ay nit yoo xam ne mën nañ leen jël ay charge donc loolu lañ njëkk def ñu toog nag xam ne ñun aussi sunu experts yi ak ñun ñëpp ñu liir. xam ne feebar bi maanaam ci ngelaw mi lay jaar te maanaam am na ay matériel de protection yoo xam ne laaj na ko. Mm. moo tax ñun dès le début je pense que gis ngeen sunu sortie ñu xam ne feebar bi bu lawee maanaam médecins yi pharmaciens yi chirurgiens dentistes yi infirmiers sages-femmes yi duñ ci mucc parce que guerre bu nekk day am ay soldats te guerre bi agent de santé yi ñooy soldat bi mm. moo tax nag booy dem guerre da ngay am munition. te munitions yi fii entre autres puisque amaguñu garab boo xam ne efficace gum na ñëpp reconnaître ko mooy am ay matériel de protection boobu au début ñàkkoon na <laughs> ñàkkoon na vraiment ñu gis ñu génn ci def ci ay sotti yu am solo te yaakaar nañ ne aussi nguur gi après def na ay effort <laughs> pour améliorer ko en dehors de cela seetlu nañ aussi parce que ñun aussi am nañ benn vécu bu ndaw ci mbirum épidémie dund nañ ay endroit yoo xam ne jànkuwanteel nañ ay épidémie yu mel ni ay choléra gis nañ effet bi nga xam ne rencontre maanaam manifestation bu am mbooloo mën na indi ci diffusion genre épidémie mm-hmm. waxaguma pandémie sax mais épidémie rek mm-hmm. rencontre yi ni ko mën a indi mm-hmm. parce que gis nañ benn année boo xam ne dañu amoon choléra mu am ay rencontre yu am épidémie yokk bu baax man ma yàlla def ma nekk ci benn district di fa liggéey boo xam ne nit ñi dañ daan ñëw par camion bu ñu ñëwee camion wàcc ñëpp am choléra ñu dugal leen salle d'hospitalisation di leen jéem a faj ñu xam ne loolu bu ñu noppee te nguur gi taxawul woon pour jël courage pour maanaam réguler rencontre yooyu ñu ne woon il faut ñu wax ko ak suñu expérience ba pare alerte nag nga xam ne bu ko nguur gi jëlee xayroon bu ko jëlul tamit ñu xam ne euh, comme on dit que nul n'en ignore <laughs> donc heureusement après on a vu que état bi jël na son courage ba nga xam ne rencontre yi ci période boobu <laughs> euh, maanaam amoon na je voudrais tamit euh, rebondir un peu ci euh, docteur Thior li mu li mu waxoon <laughs> bon man ànduma réellement ci théorie mais je pense il faut lui laisser la latitude d'avoir une position scientifique ci débat scientifique la ku nekk mën nga xalaat tout xam li nga li nga xalaat nga proposé ko dama yaakaar ne aussi même président de la république bi muy interdire bi muy ubbiwaat mesures yi c'est même pas théorie bi moom moo tax. pour man genre occasion la woon rek pour alléger. parce que seetlu nañu woon mouvement yi bari na ci dëkk bi euh, am na ay euh, vraiment beaucoup de groupes yoo xam ne bëggoon nañu ubbi. te tamit comme il l'a décrit mesures yi économiques yi commencé woon nañ ko di ko ressentir. mais maintenant nag ñun ce qu'on se dit moom mooy amaguñu woon assez de recul recul scientifique par rapport parce que quand ñu ngi commencé di ñu euh, interroger ci immunité collective man dama dañoo commencé liir lan la ñu indi ci immunité mhm. lan lañ ci bind et ñu xool ne immunité yi vraiment ñi ci bind ñëpp euh, xam-xam bi soriwul maanaam ñi bind ci immunité bi yëpp dañ naan immunité bi tey trente jours la ñi ci des quarante cinq jours et après gis nañ nit ki day feebar sax wér feebaraat donc moo tax il faut une grande prudence pour euh, genre stratégie ñun loolu moo doon suñu position maintenant comme comme il l'a di la vaccination loolu benn opportunité la opportunité boo xam ne vraiment bu ñu amee des vaccins yoo xam ni sûr nañ euh, ñu homologué ba nga xam ne vraiment amul risque boo xam ne dina ko faire courir la population je pense que loolu moom mooy mën a tax ñu vivre normalement en société parce que on ne pas être sûr am na ay feebar yu bëri am na vaccin mais feebar maa ngi fi donc dañuy dem ba nga xam ne dañuy wàññi euh, maanaam euh, propagation feebar bi ba nga xam ne nit ñi mën a vaquer seen ak dox seen ay activité sans que mu gêne leen mais daal ñun <laughs> rôle d'alerte lañu am dès le début et à toutes les étapes nous observons même ci deuxième vague bi bi ñu gisee ne maanaam seddaay bi commencé na mhm. alerté nañ génn nañ def nañ benn résolution pour dire nit ñi seetu nañ bu seddaay bi amee d'habitude maladie grippale yi dañuy yokk donc il faut ñu gën a taxaw pour euh, xeex feebar bi. d' accord dinañ ñëw ci euh, euh, facteur climatique bi nga xam ne tudd nga ko mais également ndax est ce que on peut dire réellement deuxième vague ou de toute façon ñu ngi fi ak docteur Thior dina ci indi moom contribution ñu ngi également ak docteur Konaté gis nga sa naataango yi lu ñu jot a waxee yëpp mais li nga xamante ni mën nañ ko waxtaanee également du ñu def rétrospective santé te du ñu laal secteur privé ñëpp xam ne ne que déjà 40 pour cent ci wàllu paj bi ci réewum Sénégal secteur privé bi ñoom ñoo koy assuré. ñu bëggoon xam seen rôle yéen euh, ci mbas mi euh, durant ces euh, neuf mois de pandémie naka ngeen ko dundee. di leen nuyuwaat soxna Aïcha. Mhm. di kontaan si sa question bi rôle secteur privé bon est-ce que réellement ñun am nañu benn rôle. Mhm. dans ce système parce que euh, je veux dire. pour une prise en charge, par exemple, d'une pandémie comme ça. C'est une prise en charge normalement qui est multisectorielle. dafa bare ñoo xam ne ñoom ñoo si war a intervenir. Mm-hmm. am na partie boo xam ne euh, santé publique la am na partie boo xam ne c'est euh, secteur public bi la. Mm-hmm. am na benn partie boo xam ne secteur privé am na partie boo xam ne ce sont les communicateurs qui qui doivent intervenir. mais man ci li ma seetlu surtout en tant que secrétaire général euh, euh, de l'association des médecins privés euh, ñun dès le début mhm. de la pandémie à la limite je peux dire nous avons été écartés on n'a pas été associés ni de près ni de loin donc à cette lutte-là mhm. je peux dire ñun on est sur le terrain hein on est sur le terrain on règle beaucoup de problèmes de santé mais je peux vous dire que ni ministère ni présidence ni aucune structure boo xam ne dañu wax ne que ne dañuy yore gestion wu euh, pandémie bi aucune structure donc euh, ñëwul euh, ci côté secteur privé bi donc pour contacter ñu pour donc xool naka na ñuy def pour ñun ñu mun a participer donc dans cette lutte et mm-hmm. <laughs> même hôtels yi sax ils ont été mis en contribution même les hôtels ont été mis en contribution et nous on a été laissés en en en rade et ça depuis le début on l'a dénoncé on l'a dénoncé et encore dénoncé et je peux vous dire que jusqu'à présent mm -hmm. euh, on est c'est comme si ñun on n'est pas on fait pas partie donc du système de santé donc euh, Euh, du mu nekk mu nekk lu lu lu doy waaraan ndax ku ci ne xam ne ne Sénégal euh, hôpitaux yi capacité litière bi dafay poser problème ñu bëri ñi nga xamante ne nii peut-être seen loxo xaw na jot si ginnaaw si clinique yi la ñuy dem en tout cas secteur privé bi la ñuy ruyeewu pour mën a un tout petit peu may ñi nga xamante ni seen loxo jotewul seen ginnaaw peut-être ñu dem ci hôpitaux yi. Euh, invité woon nañu fii ci point coronavirus yi ñu doon def chaque dix heures après ministère bi ki nga xam ne moom moo di docteur Babacar Niang moom décrié woon na ko bu bu bu baax a demoon sax. ba xamle woon ne que euh, daanaka booy seet mbas mi fii la ci réewum Sénégal bu yeboo ñu sant secteur privé bi ndaxte euh, ci benn clinique de la place la ñu découvrir premier symptôme yu Covid 19. Euh, c'est la clinique même moo mujj daal di woo ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa alerté ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa SAMU pour mën a SAMU mën a def test yi mën ko yóbbu Pasteur pour ñu mën a xool ndax li Covid la ou mu doon situation bu nga xamante ni dinañ ci dikkaat ci kanam ak jàmm ak aussi nu leen impacté naataango en parlant euh, nañu rek rappeler ne que euh, ñun euh, ci li leen dëkk ah di wax rek ay ka ñaata la jamono ji ñuy wax rek jamono ji ñu ngi ci lu cas yu toll yu ëpp na en tout cas euh, personnes yi nga xamante ni am nañ doomu jàngoro en tout cas ba mbas mi dooree ak léegi li ñu mën jàpp moom mooy nekk lu toll ci 16785 euh, personnes au moment où nous vous parlons euh, wér nañu waaye nag la ca jot a faatu ëpp na ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn di 386 personnes yu nga xamante ni nii jot nañoo faatu ci mbas mi ñu nekk sous traitement nag lim bi mu ngi toll ci junni ak téeméer ak ñaar juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar muy rek euh, mille cent quatre-vingt-dix-sept personnes sous traitement en tout cas man ak Bintu ak keneen sama moroom loolu la ñu yàgg di wax Bintu c'est pour revenir à waa parce que ñun lii rek la ñu mën. bi mbas mi commencé léegi la seule information bu ñu mën a jox mooy suñu waa askan wala suñu ay auditeurs wala sunu téléspectateurs mooy taxaw di xaar communiqué bu ministère de la santé et l'action sociale à 10 heures El Hadj du Ndiaye joxe ko ñun ñu jël ko encore replay ko ci suñuy euh, sunuy différentes plateformes ndax information boobu ñuy joxe euh, scientifiquement ñun doyoon nañu pour ñu joxe la bonne information Bintou waaw ay Aïcha damay euh, rafetlu sa question bi balaa may tontu si question bi. Mhm. Euh, c'est bon euh, vraiment wax liggéey bi nga xam ne journaliste yi def nañ ko ci période bi. parce que mhm. nekkul woon liggéey bu nga xam ne yomb na parce que bu ñuy wax waxu mbas pandémie en 1981 la fi pandémie gëjoon am avec le VIH sida donc euh, Ebola ñëw na fi c'était pas une pandémie c'était une épidémie mais tax na aussi euh, ñu xam un peu euh, évolution yenn feebar yu nga xam ne c'est pas très à l'ordre du jour donc mm-hmm. dafa nekk feebar yu nga xam ne day bettaate buy ñëw c'est pas intégré même euh, ci feebar yi nga xam ne en tout cas les maladies fréquentes et journaliste bi aussi mm. am rôle premier bi nga xamante ne mooy joxe la bonne information on est euh, benn dañu nekk benn kuréel bu nga xam ne dañuy joxe la bonne information mais ki ñuy jox l'information moom la ñuy relayer information wam et c'était important ci période bi euh, liggéey bi nga xam ne journaliste yi def nañ ko parce que bu ministère de la santé et de l'action sociale xëyee à 10 heures avant c'était dans l'après-midi vers 17 heures je crois mhm. euh, joxe point du jour nga gis journalistes yi nga xam ne dañu spécialisé wu sur les questions de santé euh, ñoom ñëpp wax ci tàllal micro les voix autorisées loolu aussi euh, liggéey bu nga xamante ne dañ ko war a rafetlu ci journalistes yi parce que yombut woon parce que xamuñu pandémie en tout cas la génération active de journalistes xamuñu pandémie euh, donc loolu euh, baaxoon na aussi bu ñu taxawee ci plateau yu mel nii ñu fàttali ni que du woon liggéey bu nga xam ne yomboon na maintenant information bi aussi je crois que mënuñu woon sukkandeku lu dul ci li ñu ministère de la santé et de sociale joxoon mais euh, gis nañ aussi on a la capacité d'analyse on est des journalistes euh, min nañu terrain euh, capacité d'analyse bi pour ñun moo nekkoon feebar bi jógee na Wuhan feebar bi dem na en Europe bu jógee en Chine dem en Europe on devait s'attendre ñun ñu am feebar bi mhm. mais on a profité aussi de beaucoup de formation yu nga xam ne ministère de la santé en tout cas defal na ko les journalistes en mhm. santé population et développement euh, ba rek euh, ñu mun a joxe la bonne information mhm. et puis di essayer aussi di def analyse euh, pour rek xeex bi li li taxoon en tout cas journalistes yi li tax journalistes yi dugal ci seen loxo c'est pour la sensibilisation leneen taxut mhm. te je crois que aussi ñu ngi si béy ba léegi suñu waax waaw tout à fait Bintou Kanda dañu koy dëggal parce que faire de la santé également c'est sensibiliser et quand on sensibilise également dañu war a prévenir euh, te prévention quoi qu'on puisse dafa bokk ci li nga xam ne ni moom mooy doxale réew mi kanam di leen ñëwaat ci yow bu bu baax a baax bi du jàppal ne pareegu ba si yow je te garde en repérage mm, euh, dafa am sànq lu ñu doon waxtaanee lu am solo yow sax junj nga ko bintu ci li nga xamante ni euh, moom moo di peut-être terme yi nga xam ne nii c'est grâce aux su ñu koy dégg tey da ngay euh, def point de jour ba pare terewul da ngay daal di woo benn spécialiste ko ci mel ni euh, Aïcha te mën na def euh, déglu point de jouram gis ne que tey jii thème yu cas yi dañu yokk mu ne ah attends je décide d'appeler docteur Thior docteur Thior bu ma koy wax ak moom mu yëkkati terme bu mel ni par exemple immunité collective ma jël ko tas ko loolu noonu dali permettre ñuy découvrir yenn termes yi nga xam ne peut-être ñun ñi nga xam ne mosuñu dund pandémie ñu am ay nouvelle expression ci santé yu nga xamante ni tey mbas mi dëgg la ñëw na te xaaruñu ko woon bëgguñu ko woon mais sa nous a permis euh, quand même euh, de connaître beaucoup de choses ci lu jëm ci wàllu sphère euh, médicale docteur sank wax nañu ci pàcc bi nga xamante ni moom moo di immunité collective nga wax également lan moo taxoon nga yëkkati woon terme boobu noonu tey ñuy wax deuxième vague deuxième vague yi aussi taskatu xibaar yi am nañ ci pàcc bu ndax ku ci ne tamit yaa ngi wax deuxième vague deuxième vague parce que ñun ñëpp yaakaaroon ne peut-être mbas mi dem na léegi kan lañu mën a wax épidémie ne que deuxième vague am na wala amut wala pandémie deuxième vague am na wala amut. voilà donc balaa may wax ci affaire deuxième vague bi. dama mhm. buggoon a euh, rebondir ci sama frère docteur. Euh, Camara qui est un brillant médecin. Mhm. Euh, li mu wax ci affaire immunité collective bi. je crois que wax na dëgg gis nga soo def sooy def revue de littérature effectivement boo xoolee immunité collective li mu wax loolu moo am. c'est-à-dire que da nga gis ñi ñu bëri li ci bind surtout jamono yi passé du ñu ci sori duñu ci sori parce que dañ la naan feebar bi feebar bu bees la xamuñu ko te ñi ciy bind ñu ci bëri dëkk yi ñu nekk nafa fa feebar bi def wax dëgg yàlla su dee ñoom bëgguñu xuus foofu man naa leen comprendre parce que quand même doo dem dëkk bu mel ni France dafa feebar bi nekk di fa proposer que les gens laissent le et les gens circuler même bu dee dañuy jël mesure barrière c' est très risqué. Mhm. ma bëgg wax foofu rek que ne euh, gis nga actuellement nii àdduna bi ni muy doxe daf dañu dañu piégé xam nga lan la ñuy piégé. Mhm. publication scientifique la ñu commencé piégé. oui gis nga man am na ay publication yoo xam ne dama ko def bëgg ko publier ci yenn journaux yi ñu ne non coor balaa ñu koy publier. il faut que nga bindee ko nii ma leen mais pourquoi ngeen bëgg lii rapport bi may def nii <laughs> ma bindee ko nii ma bind leen tontu leen <laughs> ñu ne non parce que ñun suñu ligne éditoriale nangam ak nangam ak nangam lii nga bind nii mënuñu ko nangu donte li nga wax yëpp am na parce que dama nekkoon Haïti ñu ne Haïti ba mu ne cëpp Haïti ñu ne au-delà de cinq cent mètres y a pas de paludisme parce que Haïti dafa nekk ay zone boo xam ne ay montagnes rek la tout la littérature en Haïti ñi ci bind ñëpp depuis des années des centaines d' années nee nañ soo dépassé cinq cent mètres y' a pas de palu man ma ñëw nekk euh, conseiller palu OMS Haïti lire littérature boobu yëpp ne ok ñu toog benn week-end ñu journaliste yi sax ñu rapporté ne il y a sept morts dans un village très reculé bi ñu defee ñooñu li leen doon rey mu am benn affaire bu ma ci marqué ñu ne d'ailleurs am na benn scène boo xam ne dafa am benn femme bu màgget boo xam ne dañ koo jiiñ sorcellerie ba rey ko moom mooy huitième mort bi ma ne ah lii de am na lu may fàttali mm-hmm. ñun ba ñu nekkee xale am na ñu doo xam ne dañ doon feebar di liyaar tudd turi nit ñu ñu tudd ñu jiñ leen dem euh, sàkkal pexe mm-hmm. bi ma laajtee ay information parce que ma doon conseiller palu OMS foofu ñu ne ma région boobu Thior c'est une région qui est située à 900 mètres d'altitude donc plus de 500 mètres personne n'a osé évoquer le paludisme ñu évoqué diagnostic mën na nekk lii mën na lekk lii mën na waa mais lii war na mën a nekk paludisme benn waaye ne ma coor xoolal bul ñu sonal Haïti ba mu dee Haïti ba léegi va voir toute la littérature doo fa fekk benn cas de paludisme au-dessous de 500 mètres donc pour te dire que man damaa yàgg bu ñuy jaaree fii ma jaar fii c'était c'est un défaut mais loolu la yàlla dogal ma ne boo équipe bii dem investigation dama ciy bokk parce que maay OMS ñu dem gis nga bi ñu demee def investigation bi benn journée la ñu voyagé te yeggaguñu fi ñu jëm ñu fanaan le lendemain ñu xëy si di dox xam nga kañ la yegg foofu quatorze heures la ñu yegg donc def nañ presque un jour et demi te dañoo dox dana dem bi oto bi mënatu la dem bi ñuy dem man yóbbaale naa samay test de diagnostic rapide gis nga on avait un taux de positivité personne population yi ñu doon def parce que ñu doon def ay test de masse de plus de quarante cinq pour cent de paludisme dans une zone où il était il était supposé ne pas avoir de paludisme je vais je vais résumer un peu juste pour mmh. dire que mmh. bu dee da nekk scientifique tey ji te gis nga euh, histoire boobu bi ma ko bëggee rapporter bi ma ko bëggee rapporter yónnee ko journaux journaux yu mag yi falaa falaa wax ne laa amoon problème ak gars yi ñu ne ma pour ñu publier ko il faut nga présenter ko nii ma bay man leen duma ko présenter ni ngeen ko bëggee nii laa koy présenter su ngeen ko mënee accepter ngeen accepter ko su ngeen ko mënul accepter ma xam ne sa va être une documentation juste pour te dire que. Mhm. gis ngeen histoire Lancet Gate bi ñoo xam ne dañ doon contre chloroquine. fabriquer ay données de toutes pièces bu scientifique yi jóguloon taxaw ne leen lii du jàll kon tey jii dinañ ne am na benn publication boo xam ne génn na sur des centaines de milliers de données ba pare dal di contre daal di daal di ne dafa wane ne chloroquine amul donc juste pour dire que nous les jeunes médecins africains dañu war am fulla ak fayda gis nga revue de la littérature baax na mais gis nga suñu expérience kii expérience bi mu am sur le terrain. Mhm. su jàngalul kenn kenn waru ko jàngal parce que man xam naa ko de plus de quinze ans donc ñu bañ ñu ñu ñuy tënk ci lii dañ ko publier lii publier ñu ko non man publication yi muy wax yëpp li ci bëri lire naa ko ñoo wax ci immunité te j'ai tout lu mais su ma paree lii ba pare dama koy teg fale indi sama expérience indi sama njàng indi sama contexte parce que ñiy bind xamuñu Sénégal xamuñu Afrique xamul nañu ñun am nañu ay immunité croisée yoo xam ne suñu organisme xëy na sax mënoon na reconnaître virus bi avant muy ñëw te man xam naa ko donc juste c'était une digression juste pour dire que d'accord naa ak moom que ne effectivement la littérature n'est par très riche dans ce domaine mm-hmm. mais bu ñuy tënku ci loolu de trop d'accord daf ñuy tere ñun ñuy bañ a exprimer suñu compétence mm-hmm. bañ a exprimer suñu savoir-faire alors maintenant pour en venir avec euh, mm-hmm. li ngay wax deuxième li ngay wax deuxième vague bon kañ ñu mën a wax ne deuxième vague am na man man loolu tontu naa ci ba pare certainement dégg nga li ma ci tontu. dama ne li nga xam ne moom la ñuy jàngal ci école de santé publique moom mooy vague épidémique c'est une courbe boo xam ne li ko caractériser ñetti élément la ñetti élément yooyu moo bu dajee ci benn courbe nga ne saa c'est une vague épidémique dafay nekk courbe boo xam ne yéeg bi day gaaw dëgg li mu wax la ma la mhm. une montée rapide mhm. deuxième élément le pic doit être atteint très rapidement et la descente tout aussi rapide pour regagner une situation normale ba nga xam ne boo ko tracé effectivement da ngay gis vague soo tracé courbe bi nga xam ne moom la ñu am épidémie Sénégal soxna Aïcha amoo loolu moo tax ma ne man je suis orthodoxe pour moi la terminologie est extrêmement importante quand on fait de l'épidémiologie et de la santé publique li ma gis ci courbe Sénégal wax dëgg yàlla du vague épidémique c'est une épidémie de faible intensité quoi qu'on qui est allée en plateau avant d'atteindre un pic la preuve pic bi spécialiste yu bëri boo leen laajee moment booba mois de mai man mi laaj na ma xaw ma ko woon ñu ci bëri xamuñu pic bi bi ñu dépassé parce que pic da koy xam bu commencé wàcc bi mu commencé wàcc fin juillet début août ci la ñu bëri xam ne effectivement le pic c'était à tel moment donc pour man su dee amuloo première vague pourquoi tu parles de deuxième vague donc je préférerais man parler de recrudescence saisonnière des cas parce que docteur Camara wax na ko euh, feebar bi dafa mel ni grippe <laughs> dafa amee période yoo xam ne bu seddee ça a tendance à augmenter peut être peut être loolu la ñu toll. mu tombé nag ak nit ñi aussi wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla suñu waxante dëgg ñu bàyyi seen loxo ci mesure barrière. d'accord. El Hadj euh, docteur moom Hadj Mamadou Ndiaye euh, wax na ko léegi léegi euh, ci bi muy expliquer peut-être li nga xam ne moom moo di yokkute kaay yi d'ailleurs moom dañuy ñëw ci moom tuuti parce que docteur bu fekkante ne yaa ngi may suivre ñu ngi ci kaaw deuxième vague ou pas ak facteur climatique bi nga xam ne yow aussi junj nga ko sànq bàyyeeku gi nga xamante ni askan wi bàyyeeku nañu ko mais ci biir mbas mi biñ ci nekkee ci digg bi da ngeen commencé woon génnee benn terme. terme moom mooy les cas asymptomatiques cas asymptomatiques yi tamit bu ngeen ko fësalee ñu bëri jàppoon nañ ne sax ku ci am soj sax ba wér da nga naan ah man koro corona woon naa ba tane demoon nañu ba banaliser moo li nga xam ne moom moo di doomu jàngoro ji de sa fait bi nga xam ne njiitu euh, Macky Sall wax na ne nañu apprendre à vivre avec le virus li ci gënoon a yomb moom mooy euh, wax ne rek euh, coronavirus daal benn sot la rek dañ koy jàll jàll ñu demoon sax ba yaakaar ne peut-être du ñu am problème mu capacité litière tey suñu problème moom mooy doon yéen ñi nga xam ne nii ba ñu ubbee woon centre de traitement épidémiologique ci bëri tëjoon nañu ko parce que mois ba nga xamante ni amuñu woon cas yu bëri tey est-ce que amuñu problème mu capacité litière ci li nga xam ne moom moo jëm ci fajub coronavirus. waaw monsieur le ministre de la santé bi cas yi commencé yokk rek xëy na fekk na nag ah, ñu jëloon centre yëpp ñu ñu jël ay centre yu am solo ñu téye leen yeneen yi nga xam ne amatuñu woon cas yooyu ah, ñu tëjandiku leen ah, en attendant mooy ñu def leen en veilleur yooyu effectivement bi cas yi jëlee nag parce que yooyu aussi personnel bi nekk woon sur place tax na ba am nañu tension tuuti ci lal yi mooy maanaam nit ñi malade yi xaw a bëri fekk lal yi am na ay centre yoo xam ne dañoo tëjoo loolu nag depuis bi ñu relancé affaire yi ba léegi léegi centre yi ñu ngi tijji tijji nañu pour l'essentiel donc actuellement mun nañu wax ne ko problème boobu a ah, ñu koy saafara nañ ko pratiquement mun nañu wax waaye nag soo gisee aussi le temps que personnel bi ñëwaat ak matériel bi tegaat kii loolu euh, xëy na loolu moo tax te nit ñi xaw a vague euh, maanaam ni ñu waxee nit ñi xaw a bëri li ñu woowee deuxième vague wala recrudescence bi mu am ah moo euh, indi pour ci lal yi mais mun nañu wax ne que loolu moom fii ak ay fan wala fi toll nii sax pratiquement amatul ñu ngi si euh, waxtaan wi également ak euh, professeur euh, Moussa Seydi sànq ba tey waxtaanee wàllum ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakken ñi nga xam ne ñoom la ñu denc ci lalu hôpitaux yi ñi nga xamante ni itamit ñu ngi leen di faj si traitement asymptomatique moom mu nekk nag coordonnateur lu jëm ci wàllum pajub coronavirus diirub bi mbas mi dooree ba léegi moom lañ ko dénk moom professeur Seydi Seydi sax euh, dafa participer ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi euh, à travers euh, le net parce que xam ñëpp xam nañ ne que jamono ji ab teewaayam ci plateau dina jafe lool ndax comme nu ñu ko waxee cas yi dañu gën a yokku te jamono ji sax ci hôpital bi lañu ci hôpital bi lañu ko gën a soxla sax que ci plateau bi mais décidé na nag waxtaan ak askan wi wax ñu également bilan fan la toll li ñuy dégg ci li nga xamante ni moom moo di mbiru vaccin yi moom naka naka la ko xalaatee ndax moom mooy fàcc mais également traitement bi nga xam ne door na ko waxtaanee depuis le début muy euh, chloroquine bi ak li nga xam ne moom moo di azithromycine mi mu daal di boole woon di ko associé pour faj fan la toll ba tey moo tax dañu koy rek daal di nuyu mu daal di ñëw dugg waxtaan ak ñun ci li nga xam ne nii gis na ko di ko dalal bu baax a baax ci plateau Savoir Santé docteur Seydi. maa nekk si plateau Savoir Santé spécial coronavirus Euh, waaw mbiru faj mi moom bilan bi bilan bu positif laa si mën a wax euh, lu ko waral nag bëri na d'abord chef de l'État euh, jëloon na si yu xaw a si njëlbeen bi pour permettre nous entre autres ñu mun a organiser su ngeen di fàttaliku fukki la war ñaar lañu amoon ak zéro la réanimation donc suñu bàyyi woon frontières yi loolu ndaje yi aussi ñu ko def mu leen neexee kon dinañ déborder te euh, suñ déborder rek musiba la la naroon nekk ñaareel bi aussi mooy amoon nañu organisation bu dëgër si njëlbeen bi laa jël ñaari taw focaux pour mun a def liggéey mu war a fépp si Sénégal taw focaux yooyu foo xalaat rek daanaka dem fa pour dimbale installer CTE yi dimbale si formation yi xam ne ñoo war a jël en charge euh, malade yi et yàlla dimbale nañu ñu am dégg suñu organisation bu dëgër. di sottante xalaat xam na mu doxalee alhamdulilah groupe bi daal groupe la boo xam ne euh, jàmm rek moo si nekk parce que ñi ñuy liggéeyal ci groupe bi yëpp euh, ñoo bokk gisin ñoo bokk doxalin muy CNS buy busoo du DG bi mu nekk sami national mu réanimateur donc ñi nga xam ne ñoo nekk côté pour di toppatoo faju malade yi yàlla def na déggoo suñu biir ñoo nañu sottante xalaat si naka lañ war a fajal malade yi naka lañ war a doxalee te lépp mu am harmonie ba nga xam ne warute amul lépp daal nag mu teg ko donc faj bi moom sant yàlla amul problème euh, mbirum vaccin bi nag euh, li si wax rek mooy euh, lépp lépp mu wax rek daf ko war a teg si lu leer vaccin benn rek laa bëgg a wax mbiram mooy vaccin Pfizer bi parce que lu mu doon doon moom génnee nañ si publication scientifique boo xam ne c'est disponible muy incontournable ak la génn euh, suñu xoolee article bi ñu ko bind am nañ xam-xam yi ko bind ko article bi liñ si bind leer na nañ te résultat yi c'est des résultats encourageants li ñu gis mooy c'est efficace parce que ñi jël vaccin bi si ak si vaccin nag mun nañ wax aussi ne am na c'est bien toléré am na ay effets secondaires yu ndaw yu muy am comme suñu lay piqué mu métti wala léeg-léeg sa yaram tàng wala sa bopp mu métteeg yu demee noonu mais loolu yëpp si ñaari fan mu disparaître ñeenti effets secondaires yu grave lañ si am te yooyu yëpp dafa dëñ après daanaka parce que effet secondaire yooyu lan la woon moo ko xam ne ko doon piqué ñu gaañ ko kenn ki amoon mbiru càqaar kenn ki amoon trouble de rythme cardiaque kenn ki amoon paresthésie tànk bi mu mel ni ay melentaan yu fay dox loolu la mais vaccin bi reyul kenn parce que gis ne ñi doon vacciné na ñaar ñu euh, que il faut ñu développer pour mun a comparer ñooñu ñeent ñoo si faatu mais ñeent ñoo faatu fële du solution saline bi moo ko indi parce que loolu doxaa xorom la mun a rey nit ñu nga xam ne dañu faat si vaccin yi si maladie cardiovasculaire moo leen rey du vaccin bi moo leen rey donc amul kenn koo xam ne faatu na moo am lien ak vaccin bi wala moo am lien ak solution saline bi bien solution saline bi sax moo ëpp décès donc dafa am commission spéciale su dara amee si lu demee nii bu mun a wax est-ce que euh, vaccin bi moo ko indi wala indiwu garab bi ñu moo ko indi wala indiwu léeg-léeg di nga dégg ñu ne la day dugg si euh, matériel génétique bi modifié ko non vaccin bi euh, système bu ñuy utiliser système bu bees la mais loolu si site placement bi lay yem du dugg si noyau bi di fa intégré wu donc loolu ay wax la yoo xam ne vraiment tegul fenn en tout cas euh, li am solo ba am solo euh, li ñuy gis si article bi loolu lu dal xel la waaw lu dal xel la nit ñi nag ñu am ay doute yooyu loolu moom mën nañ ko comprendre parce que euh, loolu c'est normal ku nekk mën nga am sa xalaat sa suspicion ak leneen ak leneen mais article scientifique ku si basé wu. sa xel day mun a daal si vaccin boobu xëy nag question logistique mun na am pour ñun parce que soo ko reconstituer cinq jours rek la mun a nekk si température frigo fekk du yàq waaw donc su dul loolu ko def si frigo yu e sedd sedd yoo xam ne laboratoire yi ñoo koy am wala hôpitaux ay moins quatre vingt degré moins soixante dix degré gën kaa néew ne moins soixante degré loolu la daal kon vaccin bi moom man de du tamit di encouragé nit ñi su fekkee vaccin bu efficace am na ak bien que lay lu di ko jëfandikoo parce que en tant que infectiologue gis naa tétanos néonatal dañuy toog ay at duñ ko gis man boo fi yegg si deux cent cas am chaque année rougeole mun naa toog ay at du ko gis mu ngi am de temps en temps ay at du ko gis avant même eh, jigéen ñi ñëpp moo xamoon ngas dañ doon wax sax bul compter sa njaboot tant que ngas jàllul yaa ngi dégg am diptérie man mosuma parce que am na vaccination balaa man may commencé liggéey sa euh, daanaka loolu jeex na fi te sama enseignant ñoom ñëpp xam nañ feebar boobu donc am na feebar yu bëri yoo xam ne daanaka euh, voilà disparaître na presque ndaxte si vaccin lañ ko jaarale donc vaccin moom lu am solo lu am importance képp ku liggéey si maladie infectieuse xam nga loolu waaw nga aar feebar bi bañ a ñëw te pour laaj si ngeen laajee aussi ñi nga xam ne mag lañ xam nañ vaccin bi mu ñëwee avant ah, moom différence moo si am waaw est-ce que waruñu ragal lu gën a garaaw am si réew mi su fekkee def nañu war a def amul lu ñuy ragal parce que situation bu njëkk a dund lu ko gën a garaaw moom mënatul am waaye nag su fekkee ne yéex nañ si nu ñu war a liggéeyee pour tijji centre yi pour tijji réanimation yi pour def lu mu war a def ah li ñu bëri mun nañ faatu ñenn ñi danañ faatu ndaxte. Euh, teeluñ ñëw hôpital mais am na ñoo xam ne teel nañ wax seen problème mais teeluñ leen amal place moo tax si côté boobu ñun ñoo war a farlu waaye loolu am naa si yaakaar parce que def nañu réunion yàggul ministère de la santé et puis ministre bi joxe na instruction pour centre de traitement yëpp ñu tijji leen euh, personnel ñu recruter leen waaye nag loolu il faut mu am effectivement euh, pour que mbir yi di bañ a demee ni muy demee nii waaw parce que fi mu ne nii actuellement quand même euh, tension bu rëy am na si lal yi parfois da ngay am jafe-jafe euh, pour pour am lal si malade boo xam ne soxla na ko soxla bu gaaw waaye am naa yaakaar fii ak semaine yi di ñëw peut mu régler mais nu mu gën a gaaw daal mu gën a baax voilà loolu daal laa amoon loo xam ne bëggoon naa ko euh, contribuer ci seen plateau savoir santé spécial coronavirus Walf TV te di baalu ak nag jot bi moom mu mayul pour mu mun a teew foofu maa ngi leen di nuyu mu nga ko di ko jaajëfal bu baax a baax euh, moom euh, professeur euh, Seydi ñun sax ñoo lay baalu àq bu baax a baax ndax jamono ji waroon na la fekk vraiment nga ci tiim maladie mais terewul nga rek daal di joxe sa contribution et je pense que ñu na ay point yu bëri yoo xam ne ku ci nekk fii am nga ci un mot à à dire mais tontu na également ki nga xam ne moom moo di DP directeur de prévention El Hadj Modou njaay mi ñuy teewlu travers le le téléphone parce que wax na ci li nga xam ne ni moom moo di capacité confirmé jamono jii li ñuy sàkk ñoom pajkat yi mooy mu gën a gaaw ñu daal di rek ubbi centre de traitement yi bu ko defee askan wi nga xamante ni testé nañ leen ñu positif ci Covid 19 ñu mën leen a jël prise en charge bu mucc ayib ndax jamono ji tàggat a tembe leneen itamit wax na ko loo xamante ni il faudrait que ma daal di ci euh, euh, interpeller ki nga xam ne moom moo di docteur Camara bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di personnel médical ñu ci bëri recrutement dafa mës a nekk seen problème durant nag. Euh, ni nga nekk secrétaire général yëpp bu bu SAMES euh, yaakaar naa ne problème recrutement wu médecin moo yàgg a nekk problème mu Sénégal fii nii ci wàllum pàcc. mais tout à fait. Mhm. Euh, soxna Aïcha xam nga ñun dañu yàgg di yëglu dañu yàgg di di prôné li ñu naan souveraineté médical souveraineté pharmaceutique ñu war a moom sunu bopp ci mbirum paj mhm. ci mbirum garab ñu yàgg di dénoncer autorités yi nga xam ne dañ daan dem di faju Europe mais bi mbas mi amee loolu dakk na parce que ku nekk bu pandémie yi amee nii day am ay instinct grégaire maanaam kenn dootul tal sa morom sa bopp ngay tal parce que gis ngeen xeexu mas bi si kim lakkandoo comme niñ koy waxee ku nekk sa bopp ngay tal loolu nag lañ mës a wax loolu lañ mës a wax mooy dañu war a solool fullaal euh, formation formation euh, médicale la souveraineté pharmaceutique et puis fexe ba nga xam ne ñu am ay spécialistes te actuellement ñun ay médecins de santé publique lañ am nañ quinze médecins de santé publique ñu nekk ISET te amuñu bourse te buñ leen joxul bourse dañ leen nar a dàq mhm. boobu benn exemple la rek c'est compliqué les recrutements mësul suivre les besoins mësul suivre les besoins da ngay gis koo xam ne nekk na médecin chef de district ba jógee station boobu nekk leneen mësul am adjoint day obligé di recruter un médecin communautaire bu dee sage-femme dem bu dee infirmier idem c'est-à-dire que daal gëdd bi ñu waroon jox santé maanaam du régime bii rek dafa mës a am dafa mës a continuer di perdurer parce que am na ay secteurs yoo xam ne ñooñ lañ mës a privilégié mooy économie finance mooy justice et cetera donc yooyu mm-hmm. parce que euh, nit ñi gën suñu woon importance peut-être santé te li ñu wax peut-être euh, bon dañu yàgg yaakaar ne peut-être que syndicalistes yi dañuy revendiquer rek mais bi ñu tëjee frontières yi ah boobu xam nañ ne dëgg am na. <laughs> parce que gis nañ ne ñun amuñu dara loo xam ne war nañ ko ñee sunu ay morom. <laughs> parce que du benn docteur moo ñëw fii di faj ba ñu am résultat yi nga xam ne ñoom ñu ngi kañu seen bopp docteurs yi nga xam ne ñoo fi nekkoon pharmaciens yi dentistes yi infirmiers sages-femmes yi ñoo takk seen ndigg. liggéey liggéey bi mais gis nañ ne que également bi nga xam ne mbas mi am na trois mois rek déjà yéen génnee ngeen communiqué communiqué bu nga xamante ne nii euh, wax dëgg yàlla tàngoon na jër à l'endroit du ministère de la santé parce que euh, demoon ngeen sax ba xam ne ne que euh, dañuy dem di di di engagé ñoo xamante ne wala di recruter ñoo xamante ne déjà sax dem nañ retraite alors que am na fi ay médecins yoo xam ne ñoo yeyoo ay postes yooyu te joxuñu leen ko te mettuñu leen au devant de cette de de cette lutte là loolu revenir ci un peu parce que c'est une actualité bu nga xamante nii ñun ñëpp traité woon ñëpp jotoon nañu communiqué bi d'ailleurs traité woon nañu ko man mi defoon naa ko fi papier off donc loolu aussi bëgg naa nga revenir ci un tout petit peu ministère bi nu mu dundee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di médecins yi ci Sénégal mais tout à fait tout à fait maanaam bi mbas bi commencé comme ni ma la ko waxee ñun ñu ngi ci station yëpp donc ñun participer nañ mais participer wuñ à escalité ça veut dire invité wuñ syndicat yi pour ñu laaj ñu sunu xam sunu avis c'est-à-dire que ñun dañuy nekk syndicaliste nekk médecin sàngam fële donc mën nañ la woo en tant que médecin mais syndicaliste bi nga xam ne ñoom ñooy gérer euh, maanaam groupe bu médecin yëpp groupe pharmacien yi groupe dentiste yi kenn laaj ñu sunu avis au début loolu am na syndicat yoo xam ne génn nañ ci mais ñun génnuñu ci woon bu ci loolu ah, précisément li ñu buggoon moom mooy fexe ba nga xam ne matériel yi disponible ça veut dire que bëgguñu woon que suñu agent yi dem au front comme ni ma ko doon waxee sans mm. arme sans protection loolu munuñu ko woon nangu te dañu commencé woon gis ne nag dañu am ay tension amoon nañ ay tension nag moo tax génnoon nañ euh, yëglu yëglu woon nañ tamit parce que gisoon nañ ay atermoiements maanaam ay hésitation bu rencontre bi amee ngay ngay jéem a nax saale yooyu mm-hmm. loolu moo taxoon ñu ne leen fii nag ñun bu kaay yokko ñun ñoo koy njëkk a bu kaay jotee ñu ñoo koy njëkk yëg donc du ñu accepter ay mesures yoo xam ne duñ ko comprendre parce que xam nañ ne risque bi nga xam ne euh, lañ nar a courir loo nit ñi et pour rebondir sur les centres de traitement mm-hmm. Mm-hmm. centres de traitement yi c'est moins les centre des lii mm-hmm. yoo xam ne pour mettre maladie que des lits de réanimation te actuellement au Sénégal mënuñu ne région bu nekk am na capacité am na souveraineté en matière de réanimation loolu yàgg nañ ko wax c'est-à-dire que mënuñu accepter benn région di bootu ci beneen région alors que même si fi muy bootu maanaam gannaawam yaatuwul taxu ko mu bari lal yooyu pour mën a accueillir loolu mhm. c'est-à-dire que président de la république wax na ko nee na il faut que ubbi wax centre bi bu ko waxee loolu en réalité il faut pas que ñu am xalaat bu gàtt xalaat ne ubbi centre yëpp dañ ko tëjoon mais ñu fexe ba nga xam ne capacité litière en réanimation fay lu ko jo lu ko lu ko lu ko jar les médecins réanimateurs parce que loolu tamit déficit la yàgg nañ ko wax bu dee nit ki da ngay ñëw fayoo ko loo xam ne lu ko jar mais on a de grands experts dañuy génn Sénégal comme ay docteur Thior ak yooyu mhm. peut-être am na yeneen raison mhm. mais bu ñu leen fayoon lu ko jar fii la ñuy toog liggéey mais réanimateur léegi bëgg nañ ko recruter sax mais pour gis ko problème la le problème de spécialisation mhm. également te loolu j'en profit pour lancer un appel solennel parce que am nañ benn médecin spécialiste boo xam ne dafa nekk entre la vie et la mort deux médecins la quelqu'un l'un benn étudiant en médecine la mu nekk dernière année mu dem ba stage Saraya benn feebar déclenché wu oh. te feebar boobu actuellement kenn mënu ko faj Sénégal heureusement président def na ay investissement à dalal jàmm pour ñu mën ko jël foofu en charge mm-hmm. ñi am feebar yooyu mais nous en appelons au chef de l'État il faut deux cent quatre-vingts millions pour faj médecin boobu mm-hmm. waaw kooku famille am dafa investir ci moom c'est un jeune de vingt neuf boo xam ne dañ ko war a aider waaw te nag loolu alalu Sénégal loolu urgence la bu ñu demee nag ba nga xam ne Sénégal mënu ko def ñun ñu dem suñu partenaire yi dem France wala États-Unis wala feneen ñaareel bi tamit am na mm. benn médecin boo xam ne mm. tamit dafa am benn problème feebar boo xam ne kooku DS la mm. xam nga DS yàgg nañu wax ay moom mooy les médecins en spécialisation yàgg nañu wax seen prise en charge médicale kooku tamit dafa am problème prise en charge te kooku prise en charge médicale bi pour bu dire rek ne pour ko jël ko en charge collègue am yi ñoo dem def benn emprunt pour commencer yóbbu ko France loolu nag ministre de la santé boobu montant bi taxu ko seer noonu six millions la mhm. ministre de la santé mën na ko jël en charge donc ñaari cas yooyu daal dégg ay cas yoo xam ne la boo taxee sax ma gën a sawar seen plateau bi <laughs> c'est pour jàllale message boobu chef de l'état daal na <laughs> fexe ba jàppale ñu suñ suñu ñaari rakk yooyu mhm. pour ñu mën leen sauver wax nga ko fi nga ko war a waxee ndax fii la voix des sans voix incha allah xëy na dinañ ci euh, ñi nga xam ne ñoo di autorité dinañ ko dégg te ki nga xam ne moom moo nekk sax au niveau du ministère El Hadj moom aussi euh, dina ci euh, jote jox ko ki nga xam ne moom moo di le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu mën a jàppale médecin yooyu nga xam ne tey millions yoo def ci ñoo war nga ko a xeeb ndax bu ñu waree war nañoo mun a faj itamit ay millions doomi adama donc loolu aussi il faudrait que euh, ñu daal di ci accentuer bu baax a baax bintu euh, dafa am leen loo nga xamante ne man dafa ma yàgg a sonal te bëgg naa plaidoyer bi nga waxal ko su nga nga waxaale ko bi nga xam ne mbas mi démarré na ñun en tant que journaliste spécialisé en santé c'est vrai que am nañu kuréel ñu nuyu bu baax a baax au passage euh, suñu président di euh, Alassane Cissé euh, moo jiite association journaliste spécialisé en santé réseau bi mais li nga xamante ne ni nekkoon nañu ñun ñëpp sunu problème mooy mbas mi ñëw na ministère de la santé quasi problème la déjà pour mën a jot ñi nga xam ne ñoo nekkoon autour de cette lutte koo ci woo mu ne la awma jotu wax benn ñaareel ba mooy boo jëlee ki nga xam ne peut-être nekkul autour de de ce programme la wante am na xam-xam li ñuy def mooy peut-être ŋàññi la parce que da nga ñëw wax loo xam ne nii ute na ak léegi te ku ci nekk tamit sa expérience ngay def parce que comme docteur Thiaw lu mu ko wax débat scientifique la et débat scientifique scientifique bu nekk am nga ca wàll. te ku ci nekk également bu ñu diagnostiquer vraiment say propos da nga ciy gis part de vérité boo xam ne nekk na ci. ñun li ñu dund yëpp yëpp yëpp. yow sax a été difficile pour euh, toi balaa ngaa dem plateau nga mën a am les informations suffisantes pour mën ko jox say say say téléspectateurs wala say auditeurs. tout à fait euh, cha euh, début pandémie bi comme nu ma ko waxee rek euh, la génération de journalistes active masuñu euh, tombé ci pandémie donc dafay xaw a jafe nga ciy wax parce que da ngay gis euh, même les médecins yu nga xam ne ñu ngi au cœur de cette pathologie euh, ñu ci bëri dañ doon ragal a wax pourquoi on ne sait pas maintenant ñoom bu ñu ragalee wax waxuma la ñun les journalistes yi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a jox les bonnes informations et c'est important bu loolu amee pandémie xamuñu ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuréel bi ñoo ñu war a wax kat ñii c'est les voies autorisées ñii ñoo war a wax euh, ci li nga xam ne mooy feebar bi ba ñun bu ñuy tàllal suñ micro ñu xam ñan lañ koy tàllal mhm. mais on se contentait du point du jour mhm. euh, pour joxe rek euh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy information mais euh, journaliste bi aussi dafa am capacité d'analyse comme nu ma ko waxee sànq on a vu euh, le cas de des autres pays yi nga xam ne feebar bi dem na fa donc dañu jël synthétiser loolu di def suñu ay propre analyse pour mun a rek joxe des informations mhm. au début aussi am na des médecins yu nga xam ne ñu ngi ñu doon nangu ubbil seeni ay kàddu di ñu waxal ci euh, feebar bi mais euh, côté boobu aussi on a u beaucoup de problème mhm. parce que euh, communication bi aussi sooxe woon na à leur niveau doo xam kan ngay tendre micro doo xam lan nga war a wax. Mhm. alors foofu noonu laa bëgg ñëw ak yow Bintu parce que da ngay dem ba benn moment boo xamante ne sax yow dangay ngay réer. dangay dem ba invité kenn koo xamante ne nii après boo ko invité ci plateau bi bu waxee ci li nga yàgg étudier santé da ngay xam ne kii li muy wax tegu ko fenn après dañ doon sax ñun trompe de cible danaan nekk situation bu bu difficile dund nga ko wala dundoo ko dem invité ni sur le plateau muy wax dara mu leer na la yow mi nga xam ne dëgg la nekkoo médecin mais yàgg nga ci domaine bi ba nga xamante ne nii kii li muy wax ni wax dëgg fa neex yàlla day wax lu ko neex rek waaye da teg juste bëgg naa toog ci plateau Aïcha wala bëgg naa toog ci plateau wu euh, bu Sen TV. waa man personnellement dunduma loolu parce que Euh, j'y allais avec beaucoup de prudence ci euh, Covid bi mhm. euh, je parlais de la maladie je parlais du point du jour wax rekk euh, parce que man euh, sama sama intérêt premier ci mbas bi bi mu ñëwee mooy sensibiliser mhm. sensibiliser comment parce que j'ai essayé approcher ñi nga xam ne mun nañ mun nañ ma décrire en tout cas Euh, virus bi nu mu mel euh, j'ai appris que c'était un virus lipide lipidique euh, dafa niin mm-hmm. que dafa nekkoon virus bu nga xam ne dafa dafa amoon dafa amoon lu ko enveloppe yooyu yëpp mm-hmm. donc bu ma bu ma amee ces informations man foofu laa accès sama sama information sama sama waxtaan bu ma amee information yooyu noonu ma ne ah fu mu nekk nii nag population bi parce que virus bu nga xam ne c'est lipidique résister wut au solvant ma ne nag bu may joxee sama bu may joxee sama sensibilisation dama naan nit ñi ñu respecter les mesures barrières euh, parce que à l'unanimité ci àddina si yëpp li nga xam ne euh, moom moo fi jógagul mooy le respect des mesures barrières takk masque raxas suñu loxo au départ sax masque yi gisoon nañ ni que euh, nañ ko takk buñ ko takk am na masque yu ñu war a takk am na yu ñu warta takk c'est après la ñu ñëw nañu mun nañu takk masque yëpp mm-hmm. mais au départ j'ai surtout axé sama liggéey ci euh, la sensibilisation population yi naka lekk la ñuy def euh, pour respecter ces mesures barrières là moo tax euh, problème yooyu xawuma ko jànkonteel bu baax parce que j'ai j'ai j'ai travaillé avec euh, beaucoup de prudence tout à fait Bintou li ngay wax dama koy dëggal parce que am na benn mois boo xamante ne yi dañuy arrêté carrément li nga xam ne moom moo di interview yi jéem a accès yow tamit sa liggéey ci wàllu recherche recherche yi moo lay mën a may peut-être nga def prévention bu bu bu mucc ayib parce que dañu Bintou Kane bu Sen TV mu wax ko par exemple ci émission am nga seetaan benn petit déj rubrique santé Aïssata Diakhaté ne la par exemple lan moo tax ñu war a takk masque nga def ko benn chronique de 20 minutes boo xam ne dañuy expliquer askan wi ne ko virus bi 1 mètre bi lan moo tax mu am ah lan moo tax nit ki war a takk masque masque bi na lañ ko war a mën a takkee kooku loolu moo koy gën a jëriñ ka nga teg peut-être benn nit muy wax euh, ci ay aspects euh, scientifiques yoo xam ne nii xam nga des fois ñoom professeur Thior ñoom docteur Thior dañuy wax ay mooy nga xam te day diis ba askan bi duñu ko mën a voilà ma yokkal la ci euh, par exemple man mon expérience ah. ci domaine santé mhm. parce que les terme scientifiques en santé Euh, boo koy jottali euh, toute une population nga dugg ci ay termes scientifiques da nga leen di réeral parce que du ñu maîtriser termes scientifiques yu nga xam ne yow yaa ngi koy joxe mhm. yow ci sa bopp sax parce que tu n'es pas médecin tu es journaliste et tu es spécialisé mhm. ci les questions de santé moo tax euh, bu ñuy wax ak population bi dañuy jàpp ni que on est face à une population profane bu nga xamante ne il faut alléger mhm. li nga xam ne yaa ngi koy waxtaan ak ñoom et c'est très important par exemple on des voix autorisées bu ñu waxee population takk leen masque xool ñu koy waxee parce que waxin aussi dafa am solo euh, ki nga xamante ne xamul nga jéem di ko xamal parce que sensibiliser c'est pas évident et le journaliste a ce devoir de sensibiliser donc booy sensibiliser da ngay seet euh, ni ngay waxee Euh, et puis mettre beaucoup d'euphémisme dans les propos euh, wax doo ko diisal euh, surtout ci pandémie euh, parce que doo bëgg tiital kenn et je crois que les journalistes l'ont assez bien réussi euh, parce que nit yaa ngi ñu doon dégg nit ñaa ngi doon euh, wax rek ne li ngeen di wax mu ngi ñuy amal njëriñ mais on est malheureusement entré dans ce travail de routine comme ñëpp sénégalais yi le délaissement qu'on a noté partout voilà dinañ ci dikkaat boobu bu baax a baax Bintu fi nga fi nga teg sa loxo foofu la mais man également euh, dañu dégg sànq ki nga xam ne moom moo di euh, euh, professeur Seydi mu yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko peut-être ci ñaari vaccin yi nga xamante ni ñu ngi tànnee docteur Thior ñaari vaccin la yi nga xamante ne ni tey moom bu ci mel ni bu ci mel ni Pfizer Euh, Union européenne barki démb ñu ngi naan que ñoom euh, euh, en tout cas ji nañ ko jéem a valider pour mën ko jox peut-être askanub askanub Europe fii ci Sénégal ñuy waxtaanee également Moderna di koy xaw caytu mais dafa mel ni professeur Seydi il est plutôt sur Pfizer ci la gën moom la gën a jox bopp peut-être bu ñu doon vacciner euh, réewum Sénégal pour dugg rek ci beneen débat scientifique boo xamante ne nii c'est euh, euh, c'est c'est c'est c'est nu ñu koy waxatee terme médical yi faw faw rek mu génn mais également li nga xam ne moom mooy terme pharmaceutique yi faw mu génn vaccin faaw ñu waxtaanee ko bu ñu dee mbas bu dee mbas am na loolee mën mënta ñàkk ci fànn woowulee ran nga ñuy wax déjà ci probable vaccin bi nga xam ne tudd nañ ko peut ci monde bi Euh, mais soxna avant may ñëw ci vaccin boobu nga mhm. baal ma si vous vous autorisez mhm. dama bëgg a def benn commentaire ci li nga xam ne dégg naa ko professeur Seydi wax ko ak euh, mon ami euh, docteur Camara mhm. moi je crois que dama bëgg d'abord féliciter professeur Seydi qui est mon camarade de promotion nekk un médecin de très grande valeur macha allah di def liggéey bu mucc ay te booy xool ci pandémie bii man li ma si jàng un des points forts, en plus du l'engagement politique bien sûr, c'est vraiment la prise en charge maanaam tey Sénégal mën nga wax ni nit ñi ñu ngi am corona mais mettre nañ en place protocole boo xam ne ñu ngi faj ñi ñuy wér loolu mën nañ ko wax ñu ngi leen di jox ay garab ñuy wër di dem seen kër chaque jour ngeen dégg ñu ne leen le nombre de guéris tant <laughs> mais mu am loo xam ne daf ma tiital jaaxal ma parce que man dama foogoon ne. décès yu bëri yi ñu am nii c'est parce que les gens venaient en retard loolu à jàppoon mais j'ai appris ci discussion bi que ndekete am na centre de yoo xam ne dafa c'était pas prêt et que peut-être il y a des gens qu'on est en train de perdre parce que nos structures n'étaient pas prêtes pour les prendre en charge moi je crois que kooku ce n'est pas pardonnable mm-hmm. ku ci war a wax war nga ci wax parce que chaque jour ñu ñu tiital ak ay nit yu dee ku ci war a wax war nga ubbi sa gémmiñ nga wax parce que on a parlé quand même de mille milliards mille milliards la ñu génnee ñu distribuer ko tout le monde lan la ci santé bi am lan la ci santé bi am ba tey ñu professeur Seydi di jooy ay matériel bu manqué dans dans ces CTE ku ci war a wax war nga ci wax pour que ñu génnee moyens yi forme les gens qu'on doit former ay réanimateurs jënd matériel de réanimation pour que dans le fin fond du Sénégal dans les régions les plus reculées qu'on puisse avoir un centre de traitement qui répond aux normes centre de traitement du uniquement ay murs ak ay lal non war na am personnel bu ñu former réanimateur nañ recruter réanimateur léegi ma ñëw ci deuxième point bi nga ma invité pour wax muy vaccin bi le vaccin <laughs> alors man personnellement ku ma xam wax dëgg yàlla di nga xam ne man non seulement j'ai pratiqué la vaccination sur le terrain en tant que médecin de pendant quinze ans mais dama gëm vaccination ba pare gis li vaccination def ci njëriñ mhm. donc vraiment mënuma mënuma contre vaccination dans le principe non je peux mais li nga xam ne moo am ci coronavirus bi dafa tax dafa laaj ñu taxaw seetlu dañu am ñetti candidat vaccin en door du vaccin russe et du vaccin chinois les vaccins occidentaux boo xam ne benn bi Pfizer moo ko defar benn bi Moderna benn bi AstraZeneca Oxford bi mujj bi moom vaccin classique la maanaam c'est un vaccin avec un microbe atténué ou tué mais ñaari njëkk yi Pfizer ak Moderna dañoo indi benn technologie bu bees qui est basée sur une manipulation génétique alors je ne suis pas contre le progrès scientifique kenn mënul bloquer science xam-xam mën na dem ba ñu yegg foofu def manipulation génétique pour un vaccin je ne suis pas contre le principe mais soo defee manipulation génétique dafa nekk lu bees actuellement le recul qu'on a c'est un recul de trois mois man publication scientifique yi je m'en méfie depuis le Lancet Gate mm -hmm. on peut faire écrire n'importe quoi n'importe qui parce que am nga da ngay respecter ay procédures rek mhm. ñu ne étude bi c'est valable surtout si corona euh, Lancet Gate c'était la même chose les gens ils ont écrit quelque chose de mensonger sur la chloroquine en respectant des protocoles on l'a accepté dans le Lancet France basé wu ci arrêté et protocole ne chloroquine baaxatul. Mhm. dans la journée OMS basé wu ci pour ne non on arrête nos essais cliniques bien que après revenir nañ là-dessus donc man benn publication scientifique man du modifier suma opinion. Mhm. ah non non pas du tout. il en faut des centaines de publications yu beaucoup yu bëri il faut beaucoup d'années beaucoup de recul pour ñu xam ndax manipulation génétique bi. est-ce que du am effet oui ou non parce que zone d'ombre yi dafa bari. monsieur vu monsieur Coro monsieur vaccin qui est un éminent immunologue professeur Fischer. bi ñuy lance campagne de vaccination bi en France li mu wax ñëpp dégg nañ ko en résumé dafa ne vaccin bi doy ko. c'est ça qu'il avait dit. vaccin bi doy ko amul recul prouvé wul ne c'est efficace contre le virus prouvé wul ne c'est efficace sur la transmission mais attendez. attendez du ma wax kenn ne bul vacciné wu du ma xarab vaccin je dis juste simplement que on a suffisamment d'éléments pour être prudent d'autant plus que le vaccin pour ñun ñu nekk en Afrique subsaharienne mais milliards yooyu ñuy dépenser pour jënd vaccin parce que nag bu ñu kenn nax naan ñu ça va être gratuit quelqu'un va payer et nous on va payer les gens qui ont conçu le vaccin nee nañu seen ñoo commencé ñu nekk parmi les gens les plus riches au monde. <laughs> kan moo leen fay. occidentaux yi nga xam ne amatuñu xaalis dañuy fayal kenn donc ñun ñooy fay vaccin bi yow man donc xaalis boobu ñuy jëlee vaccin yi soo ko defee ci prix changeur Sénégal bi mais décès yi dañuy wàññeeku bu baax. Mm-hmm. tu n'as pas besoin de vaccin pour l'instant tu as besoin de renforcer. la prise en charge les CTE là milliards yooyu nañ ko def foofu. tout à fait. donc man loolu laa wax. présidence ba ñu pënd bi wuri parce que fi ne nii coow li bari na trop ci vaccin bi te nag ban risque la ñuy jël gis nga programme élargi de vaccination bi nga xam ne moom la docteur Ndiaye yor <coughs> dafa nekk benn programme boo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a aar dañ ko war a protéger parce que man bi ma nekkee médecin district xam naa li ñuy daj pour relever le PV. PV demoon na ba daanu. Mm-hmm. moto bu ñu vacciné sax amuñu ko ñu dugg ci programme Gavi di def ay plan d'action au niveau du district régional ba yàlla def ñu relancer waat le PV mais bu ñu fexe ba nag sàggan ba nit ñi di weddiwaat PV ñu ñooy perte parce que soo dugalee vaccin boo xam ne nit ñi wóolowuñu ko mais les gens dañuy balancer le bébé avec l'eau du bain. tous les autres vaccins dañu naan ñoom ñëpp yooyam dootuñu vacciné wu. Mm-hmm. donc na mu def attention. te koo xam ne war nga wax encore une fois seetal sa diggante ak sa yàlla nga wax lii dafa bees xamuñu ko. nañ ci def ndànk nañ ci def ndànk d'accord. Euh, nañ ci def nag am na solo ndax tamit dafa am euh, euh, programme bu fi nekk mooy programme élargi de vaccination moom docteur Thiol junj na ko lu am solo la ci nekkinu ndaw ñi ndax mooy tax sunu màgg am solo muy daal di dabu doomu jàngoro yu bëri yu nga xam ne mënoon nañu lor mënoon nañu lor ci ay pàcc yu ne ci sunu yaram te pourtant vaccination boobu ñuy def xale yi moom mooy sauver xale yi te bu fekkente ne def nañu njuumte rek ci pandémie bi instauré fi benn vaccin boo xam ne mën nañoo gàllankoor mën na yàq fallait ñu éviter ko et euh, vraiment foofu noonu euh, nga laal li xale wa foofu nga laal baax na euh, damay ñëw si docteur Konaté docteur Konaté bu ñu nee tey ji coronavirus am na c'est vrai que ñi ci faatu 300 personnes et quelques du lu ndaw vraiment duñ ko duñ ko duñ ko xeeb di ci masawu ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen mbokk yépp di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana waaye leneen ay doomu jàngoro dafee yàgg a nekk avant coronavirus y a de ces maladies y a de ces euh, euh, maladies chroniques yi nga xamante ne yàgg na fee nekk y a de ces euh, yi nga xam ne yàgg na fee nekk te ñuy dund ak ñoom des maladies cardiovasculaires merci bintu yoo xamante ni également yàgg naa lottal askan wi te pourtant dañ leen daan faj mais demoon na benn mois boo xam ne dañ doon jàpp slogan bi restez chez vous restez boobu demoon na ba lor secteur privé bi ndax am na ñoo xamante ni dañ daan am rendez-vous sax daawuñu woon dem ci hôpitaux yi faju wala dem ci cliniques yi faju simplement rester chez vous yéen situation bi euh, c'est vrai que wax nga ko sànq ne que dugguñu leen soobuñu leen benn yoon euh, seen bopp liggéey bi mais lor nañ leen en quelque sorte ci seen i ay slogan lan ngeen dund ci mbas mi euh, bi nga xamante ne nii toog lañu en tout cas seen i patients ñu ci bëri tamit faatu nañu ci biir kër yi non pas par coronavirus mais par d'autres maladies yi nga xam ne ñu ngi ko doon dundaale. d'accord waaw wax nga dëgg soxna Aïcha. Mhm. restez chez ça été vraiment très pro pro problématique. li mu andi si loraange je pense que moom moo ëpp si li mu andi si ay euh, bénéfice <coughs> euh, diabète baa ngi fi. Euh, comme vous dites les maladies cardiovasculaires sont là euh, cancer mi ngi fii paludisme mi ngi fii am nañu moment boo xam ne dañu dem ba toutes ces pathologies là dañ leen relayer au second plan et c'était des pathologies yoo xam ne ñoom ñoo ëppoon morbidité et mortalité par rapport ak euh, coronavirus bi mm. donc c'était beaucoup plus mortel euh, man dam lay euh, jox benn benn tegtal bu ndaw rek ah euh, si samay activité mm -hmm. euh, ce qu'on appelle euh, des visites à domicile damay gis malade à domicile mm si visite à domicile yi il nous arrivait par exemple de faire des constats de décès à domicile il nous arrivait donc euh, je peux dire par exemple si sama pratique je pouvais faire benn constat de décès euh, par deux mois ou bien par trois mois avant coronavirus bi mais bi coronavirus bi duggee euh, je peux vous assurer toutes les semaines doon naa def benn euh, constat de décès à à domicile donc euh, tout de suite euh, euh, da gis différence bi tout suite. Mhm. donc euh, nit ñi dañu <laughs> accroché wu si corona bi accroché wu si corona bi. et puis mhm. yeneen pathologie yëpp ñu mettre leen en en en second second plan. Mhm. et c' était quelque chose qui était vraiment dramatique c' était pas sérieux et ça ça dramatique donc. Euh, li mu yàq daal ah si tënk dafa da da dafa bare woon. Mhm. lu mu yàq également ci seen liggéey euh, euh, xaw na bari parce que docteur Thiol junj ne ko léegi 1000 milliards la ñu décaissé woon en tout cas képp ko xam ne ni impacté nga ci ñu jox leen ci yéen secteur privé bi lan ngeen am ci 1000 milliards yi. <laughs> ben wax naa ko sànq. Mhm. du début jusqu'à la fin jusqu'à présent jusque là ba fi may wax ak yéen nii on est c'est comme si on n'est pas concerné. Rien. Mais on n'est pas concerné. Ben, on est des citoyens et on est des ñun dañuy créer ay emplois. Mhm. dañuy créer ay emplois man je suis une petite structure euh, j'ai vingt employés dont cinq yoo xam ne ils sont embauchés. Il y a d'autres structures privées yoo xam ne ils ont des centaines. Mhm. d'employés. Tout à fait. ñun dem nañu ba benn instant je peux vous dire euh, la moitié de mon personnel. dem leen euh, demander woon ñu arrêter parce que je n'arrivais plus à les à, à, à payer et je peux vous assurer on paye l'impôt on paye l'eau l'électricité le loyer les charges mm -hmm. les salaires mhm. yëpp suñu kaw plus euh, plus euh, appareil médical yeeg plus maintenance bi ci tebook les charges voilà ak mooy les charges mhm. donc suñu <laughs> jëlee loolu yëpp teg ko amuñu subvention amuñu dara mais à un certain niveau et tout à l'heure yaa ngi waxoon nekk ne euh, nous réglons 40 pour cent des problèmes de santé man je peux vous assurer on règle plus de 50 pour cent des problèmes de santé de ce pays et depuis que corona bi duggee tamit gars yi tëj frontières yi également euh, c'est-à-dire ñi doon voyager yëpp tamit. Euh, est-ce que est-ce que tamit du ci seen faute xam nga yéen tamit ñi nga xam ne yéen a géré euh, clinique yi da ngeen a xaw a am xaalis loolu ba du ngeen demandé parce que <laughs> docteur Thiol yaa ngi may retardé li mu wax dëgg la parce que am nañu ñi secteur yëpp te jàpp ne Tagana Tembe ñoom dañoo laajte yéen laajte wu leen ngeen noppi rek. ben si. Hmm? dès le début dès le début on s'est on s'est euh, même euh, par rapport à la prise en charge. Mm par exemple le, système diagnostic mais waxoon nañu ne nañ ko démo démocratiser diagnostic bi c'est-à-dire les tests de diagnostic euh, on n'a pas été suivi euh, par rapport aux hospitalisations il y des collègues qui se sont euh, da joxe nañu seen clinique ñu ne ils sont prêts pour joxe seen clinique moyennant ah pour la prise en charge. les gens euh, ne les ont pas suivis. Mm. donc ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi mi ngi ci biir. d'accord euh, euh, bien sûr une bien petite sûr, question mm -hmm. par rapport mm -hmm. ak euh, le secteur privé. Mhm. est-ce que ñoom dès le départ ils se sont pas montrés euh, désolidaires désolidarisés wuñ parce que le premier cas qu'on a noté au Sénégal. c'était dans euh, un privé c'était dans un privé mais bi presse bi di relayer l'information. Euh, le cabinet l'hôpital privé je sais plus euh, moom ci boppam dafa demander ñu bañ a fësal ban la donc euh, stigmatisation voilà voilà ñoom ñu ngi bañ déjà stigmatisation boobu parce que dañ doon bañ peut-être seeni ay patients di leen daw mm-hmm. maintenant est-ce que buñ démocratiser woon aussi parce que y a un peu de la contradiction par rapport ak privé bi li ñu bëgg ak li nga xam ne moo xew ci Covid 19 bi aussi voilà communication moom moo jaarul woon dès le début ça man je l'ai dénoncé c'est-à-dire euh, euh les journalistes ah je peux vous dire euh, au début peut-être que c'était manque de formation la woon ou bien vous n'avez pas reçu les informations qu'il fallait mais c'est-à-dire euh, les gens ont avaient tellement fait peur euh, à la population que euh, on ne pouvait pas se permettre Euh, non, il faudrait affiché wu. il faudrait signaler que ñun on n'avait pas fait peur à la population mais c'est l'État qui avait peur à la population. mais avec les, Dès les le journalistes dès le début le moo toog grave. le est grave nag boo ko waxee les ont toujours été responsables moi je le reconnais en tant que journaliste. Ah, dans la dans la <laughs> non non mais c'est vrai en plus. parce <laughs> que ba nga génn boo génnee gars la doon. <laughs> non non parce que les journalistes ont été très responsables dans cette lutte quand mm-hmm, même. Mm-hmm. très très responsables. ñi nga xam ne en tout cas am nañ éthique et déontologie ñi nga xam ne dañ appartenir à des groupes de presse responsables. Mm-hmm. je crois que ñooñu def nañ liggéey bi nga xam ne. Euh, moom lañ doon xaar ci ñoom. moom lañ doon xaar ci ñoom benn tour de table ak moo ñu dese parce que ñu ngi may signaler que ni temps bi jeex na euh, tàkk euh, lu neex nag du doy juste ci impacté yi yéen waa SAMES amoon ngeen benn programme bien établi depuis janvier deux mille deux mille vingt mais bi ñu toxalee deux mois mbas mi daal di ñëw muy mois de mars ñu gis ne que seen activité coupé na lan la yàqal SAMES du point de vue stratégique li ngeen bëggoon antu pour que seen seen liggéey gën a mën a mucc ay bien médecins donc euh, comme nu ngeen ko xamee rek mbas bu amee day am benn sursaut national te loolu je pense que constaté nañ ko ci mouvement syndical yi parce que mhm. ñun euh, en tout cas le 3 mars 2019 dañu euh, le 3 décembre 2019 dañu déposé woon plateforme revendicative am ci biir plateforme bi ay accords yoo xam ne ministère da ko waroon respecté ñu dem ba seetlu ne ministère euh, de la santé ak état bi sàmm sàmmuñu seen kàddu te étudier wuñu sax plateforme revendicative boobu ñu ne nag léegi ñun yëglu nañ mais dañu war a dem grève <laughs> mbas mi ñëw ñu ne nag fi toll nii mënuñu di xeex mbas di dem grève <laughs> donc ñun d'une manière unanime ñu ne dañuy teg lépp ci suuf. ñëpp raccordé woon. xeex corona bi. mais li ñu seetlu mooy ci biir corona bi bi ñu gën a baree cas seetlu nañ ministère de la santé foofu la gën a continuer di jalgati ça veut dire que euh, gestion démocratique des ressources humaines bi nga xam ne amoon nañ ko ba nga xam ne amoon nañ des accords yoo xam ne c'est même même si c'est non écrit amoon nañ ko des accords tacites ça veut dire que boo nekkoon Dakar boo fi nekkee vingt ans adjoint boo bëggee progresser da ngay dem ci région yi jàng fa loolu mooy permettre ki nekk ci àll bi ñëw ministère de la santé sàmmewul loolu ñu seetlu ne tamit amoon na ay postes yoo xam ne c'est dédié boo bëggee nekk médecin chef de district da ngay dem nekk adjoint nga toog fa trois ans quatre ans cinq ans nekk médecin chef de district après nekk médecin chef de région ainsi de suite def sa mm. carrière mm. wala nga dem programme ñu seetlu ne loolu tamit ci biir mbas mi ministère de la santé sàmmoo te tamit am na concertation bu daan am pour que ñu vérifier que règles yooyu yëpp daan nañ te biir mbas mi seetu nañ ministère de la santé respecté wul lool te dafa obliger tamit di sërëxal loo xam ne ñun euh, wane woon nañ sunu opposition ci moom mooy direction régionale de la santé mhm. direction régionale de la santé nga xam ne dañ ko bëgg a instituer à la place des région médicales sans préciser que docteur moo ko war a docteur en médecine moo ko war a diriger ça veut dire que boo demee yow ci compagnie je pense que notre colonel va pas nous démentir amul administrateur civil boo demee ci inspection ay enseignants la ay inspecteurs ñoo koy diriger boo demee tribunal magistrat moo koy diriger léegi ñu bëgg a créer benn direction yam ci personnel de la hiérarchie A loolu xam nga ne duñ ko nangu même bu dee deuxième wala troisième vague dafa am loolu bés bu ñu ko bëggee dëggal. di ngeen wàcc ci mbedd agent yëpp dinañ génn. parce que loolu ñun du ñu nangu mukk ñu caxat caxatee suñu carrière. parce que suñu famille dañu investir pour que ñu def benn carrière bien connue. maintenant mhm. Mhm. pour terminer rek il faut dire que y a des yoo xam ne le président de la république même l'a reconnu mhm. nee nañ agent de santé yi war nañ leen motiver gën a motiver. d'accord te actuellement am na ay prime Covid yoo xam ne fay ñu ko DES yi fay ko depuis trois mois am na ay centre de traitement yoo xam ne fay ñu seen seen prime Covid te am na benn iniquité boo xam ne dafa am ci secteur bi mooy dañu ci fonction publique def nañ étude bi sur le système de rénumération mais dafa am ku mu am ndey ak ku mu amul ndey d'accord moo tax nag prime de logement mhm. bu ñu jugee ci Covid bi bu ñu ko amul mhm. nañ yaakaar ne ne injustice boobu vraiment kenn fajagu ko te loolu nag yaakaar naa ne léegi xam nañ suñu solo balaa ngay toppatoo xaalis wala nga toppatoo jugement da ngay wér d'accord te mbas mi wane na xam naa ne 2021 dina xaw a euh, tàng torop ci santé bi mais dañuy ñaan yàlla rek covid bi jeex tàkk ñu def euh, dernier tour de table rek remercier ñi nga xam ne ni ñoom ñoo teewoon fi yëpp docteur Thior ñu ngi lay jaajëfal bu bu baax a baax di la bàyyi nga tàggatoo waaw mais merci beaucoup je waxtaan bi amoon nañ njëriñ bu mm-hmm. baax mm-hmm. je liggéey continuer liggéey bu liggéeyee rek feebar bi bon je crois que même bu ñu amee ay cas. mën nañ ko contenir mën nañ ko gérer nit ñi continuer liggéey économie bu commencé dox parce que li gën a bon. Mhm. ak li li ñu war a gën a tiit. Mhm. mooy ñu fexe ba jël ay mesures yoo xam ne. Mhm. dafay encore plomber l'économie davantage. tout à fait parce que on ne peut pas faire de la santé dans un environnement boo xam ne si économiquement mort. mënta nekk. Donc je pense que l'économie dans ce contexte-là prime quand même sur tout autre aspect. Donc je pense que loolu laa bëgg tàggoo. D'accord jërëjëf docteur euh, euh, Thior consultant international euh, expert en santé publique ñu jaajëfal bu baax a baax docteur Oumar Konaté yooyu tamit ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo. waaw di remercier waa plateau bi et j'espère que lu ñu wax fii dina jëriñ euh, population bi mhm. di ñaax nag euh, population bi quand euh, nañu gën a góorgóorlu si mesure de barrière yi et boo bon voilà quoi voilà. merci docteur euh, Omar Konaté secrétaire général adjoint association privée euh, yi ci clinique privée yi ci euh, Sénégal euh, docteur Yéri Kam Amadou Yéri Camara maa ngi lay jaajëfal lu baax a baax ku la sonal laa nag waaye damay profiter de l'occasion rek di la <laughs> baalu àq te di la wax nekk kontaan naa trop ci dalal la tey non ñun ñoo kontaan ñu ngi lay remercier ñu terminer rek ci note positive mhm. quand même reconnaître que quand même ministère de la santé def na effort yu bari mhm. waaw te war na def tamit investissement bu am solo ci mhm. secteur de la santé ñu remercier ñëpp encourager nag médecin te dire na tamit on est fier du comportement des agents de santé durant cette crise ñu rappeler nag que am na ñaari sunu ñaari rakk yu nekk ci xat-xat ñu appeler le chef de l'État et le ministre de la santé mhm. mu góorgóoru ñu jàppale ñu mhm. fexe ba nga xam ne ñu génne leen ci xat-xat boobu yaakaar naa ne du tàbbi ci noppiku tëx euh, moom euh, docteur euh, Yéri Amadou Yéri Camara ñu fàtte rek moom moo nekk secrétaire général bu SAMES Bintu waaw yow moom euh, dama lay euh, sant di la gërëb di la remercier et puis ñëpp xam nañ sama relation ak yow ci euh, presse bi donc yow moom du ma la remercier dama lay bàyyi ak yàlla rek di la ñaanal également ca fa nga nekk yaa ngi cee liggéey liggéey bu am solo di la féliciter bu baax a baax di la rafetlu sa teewaay fii merci donc man je termine par un plaidoyer mm-hmm. état du Sénégal rek ñu góorlu en tout cas ci relever le plateau technique bi nga xam ne moo ñeel wàllu wér gu parce que il faut beaucoup qu'on s'inspire de nos autres des autres pays lu ci mel ni la Tunisie lu ci mel ni le Maroc ñoom Sénégal la ñuy jàngisee on a vu récemment le roi du Maroc bi nga xam ne dafa def une intervention boo xam ne bu am solo ci wàllu wér-gu-yaramu boppam il l'a fait au Maroc le roi Hassan II n'est jamais sorti du Maroc pour se faire prendre en charge ailleurs on doit s'inspirer de sa euh, éviter les évacuations qui nous coûtent des, des millions millions donc loolu defe naa buñ ko injecté ci secteur santé bi euh, jéem a jënd des xam ne de dernière génération vraiment dina permettre euh, suñu euh, plateau technique yi relever dina permettre ñu mun a faj suñu ay maladies chroniques et essayer vraiment euh, di toppatoo lépp lu nga xam ne rek c'est des maladies yi nga xam ne dañ koy gis ci suñu réew beneen bi nga xam ne maa ngi koy wax rek mooy par rapport aux populations ñu góor góorgóorlu ci les mesures barrières parce que la réponse elle communautaire la réponse euh, ministère de la santé yoru ko ministère de la justice justice yoru ko parce que ministère de la justice ni nga xam ne daf koy forcer pour nit yi di ko takk masque c'est pas évident mm-hmm. maintenant euh, on appelle à la responsabilité des populations ñu responsable xam ne la réponse se trouve dans les populations dans la communauté mhm. ñuy essayer rek di takk masque yi di raxas loxo yi ndox ak saabu mhm. euh, bu fekkente ne loolu amu ko ñu utiliser les gels hydroalcooliques yi nga xam ne mu ngi fi et puis di essayer di respecter la distanciation euh, physique euh, ma lay jaajëfal bu baax jërëjëf mhm. Bintou Kane ci engagement communautaire bi nga xamante ne jeexale nga ko plateau bi daanaka tour de table bi permettre nañu ñu daal di laal c'est large je pense que li nga xamante ne mënoon nañu ko waxtaanee ci rétrospective santé 2020 mate nañu ko euh, ci rek spécial euh, plateau savoir santé ñëpp xam ne ne ci loolu rek la ñu daal di dox euh, di leen rek sant di leen gërëm bu baax a baax ci topp geeg teewlu gi di gërëm ñi nga xam ne ñoo participé ci émission bi yëpp di gërëm docteur El Hadj Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ci dugg gi nga xam ne dugg na ko moom itam ne ngir leeral bilan à mi parcours bi nga xamante ne nii ñoom ministère bi ñu ngi coronavirus di gërëm également professeur Seydi bi nga xamante ne nii euh, daal dinaa rek euh, intervenir euh, ci émission bi ngir rek waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di askan wi aspect clinique bi aussi liggéey bu am solo la ciy def di gërëm di sant ñi nga xam ne syndicat yi jiite paramédicaux yi ku ci mel ni ay docteur Jo Souleymane Mané maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax ci question yi nga xamante ne nii moom soulevé na ko bu baax a baax ñoom itamit il faut ñu leen di bàyyi xel di gërëm aussi Cheikh liggéey di ñaxtu également saa su nekk ngir ñu daal di mën a yeesal seenub nekkin après corona am na yeneen doomi jàngoro yu fi nekk nañu gën a caytu doomi aadama yi gën leen a jàppale bintu aussi wax na lu am solo état bi na ci bàyyi xel bu baax a baax dëkk buy dox dafa fekk ña koy jiite di fajoo ci dëkk bi bu fekkee dem nañ ba fajoowuñ ci dëkk bi nañ jàpp dëkk ba doxut donc nag ko bëgg nag sa magistère dox na ngay fajoo ci dëkk bi say doom di fi fajoo di fi jàngee dugg ci transport yi comme ñëpp loolu mooy dëkk bu avancé ñu ngi leen di ñaanal mbokk yi ànd ak jàmm bonne année à tout le monde di gërëm nag ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci réalisation wu savoir santé ci at gi yëpp ngeen di gunge ay sojaxate bég naa ci yéen euh, euh, coordination bi Moustapha Diop maa ngi koy gërëm bu baax a baax euh, di gërëm également Mouhamadou Bitey pour programmation bi bi euh, di gërëm ki nga xam ne moo di oustaz Assane Diouf bu baax a baax jàpp na ci savoir santé diirub atum 2020 bi yëpp ma leen ci gunge euh, di gërëm technicien yi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw yëpp euh, euh, topp Abdou Top maa ngi koy remercier bu baax a baax di gërëm ki nga xam ne moom moo di Barak Mbaye mooy monté savoir santé moom ak Khady mbay ak ki nga xam ne moom moo di Alioune jopp ñooñu samay équipe choc lañu ci savoir santé ñoo may gunge Serigne Saliou Bey bég naa ci yow fépp fu ma mën a dem ci immersion ngay euh, daanaka risque la fu nekk dugg nañ fa di dem li def li nga xam ne moo di savoir santé di dem ci ay centre de traitement di dugg di fekki maladie yi may ànd ak yow ko accompagnement ci yow maa remercier bu baax a baax euh, Ibou Gueye di remercier caméraman yi sama Aline Sitoé Diatta mami di gërëm Pape Gora PGG bu bu laal la léegi nekk toobu Aïcha bu laal la nga na leer Babacar pour les photos Babacar pour cadrage beeg yëpp yow Ibou maa ngi lay remercier bu baax a baax di gërëm toute l'équipe de Savoir Santé ñu nekk sama ginnaaw doon ma gunge di gërëm rédaction bu wal Walf TV ci participation bi accompagnement bi yëpp lépp rek pour santé gën am doole ci Walf TV jàppal ne 2021 leneen i leneen lay nekk yeneen i aventure yeneen i découverte ci Savoir Santé jërë ngeen jëf mbokk yi et bonne année à tous